mooy aaya yi nekk ci bopp saar wu ñuy tuddee saba i saba i nag histoire bu siiw la ci taarix di histoire boo xam ne moo jiitu lislaam lu jiitu ñeenti téeméeri at yàlla bëgg koo nettali fii mu doon xew-xew bu mag bu xewan fële ca yaman ba taxoon tey seen mbooloo mu fa dëkkoon tasaaroo ñii tuxu jëm Makka ñi tuxu jëm Bagdad ñii tuxu jëm Misra ñii dinañ tuxu jëm sax ba awsu ak xasraj googu yonentu fekkoon Madina fii lañ soqee koo woon mooy seen cosaan kon histoire bu rëy boobu moo nekk ci biir saar wi yàlla jël saar wi tuddee ko ko muy suuratu saba yi saar wi nag boo ko seetee juróom fukki aaya la ak ñeent 54 54 laaya la saar wi boo ko seetee baat yi juróom-ñetti téeméeri baat la ak fanweer ak ñett muy 833 la ci ay baat soo calculer nag xaraf yi dana la jox junne ak juróomi téeméer ak fukk ak ñaar la ci ay xaraf saar wi dana làmboo ubbee sant yàlla mi nga xam ne lim man moom rekk ko man moo mën a bind asamaan si bind suuf si la cay dugg ak la cay génn ak nam fa nekkee lépp mu xam ko ku mel doon ku mel noonu dong moo jara sant ànd ak lu rëy noonu mu def lépp nag am na ñu taxaw di ko weddi moo tax dana wax ci ñiy weddi yowmal qiyaam ak ñiy weddi yàlla ak ñiy weddi dekki bu ca bàyyeekoo dana indi xissa ñaari yonantu muy bàyyi ak doom kii di daawuda ak suleymaan dana wax seeni jaar-jaar suleymaan ak nam doon tabaxee baytul muqaddas suleymaan ak ni yàlla jëlee bakkanam ci sànce jàkka jàkka la doon taxaw muy juma muy jàkka kon ba yàlla jël bakkanam bu ci bàyyeekoo dana door a tudd nag maanaam saba yi muy mbooloo moomu nga xam ne ba léegi yaaram yi dañuy léeb mbooloo mu teqalikoo gu nekk ñu ne ñoo gën a teqalikoo mbooloom saba ima ndax niñ teqalikoo waxe woon arab di ko léebee ba léegi kon saar wi lu mel noonu lay lay maanaam lay lay wax saar wi nag mi ngi ubbeekoo ci sant yàlla moom lay wax si nii moo tax mu ne bisimillahi sos na ma sama wax ci tudd turu buur bi arahmaani buur bay xéwalaa koon bépp mbindéef ci àdduna arahimi buur bay xéewal ku ko soob ci àllaaxiraa alhamdu melowu sax te rafet lillaahi aji sax la yàlla alladi yàlla ma nga xam ne lahu aji nekk la ñeel ko maa fi samaawaat li nekk ci juróom-ñaari asamaan wa maa fil ardi ak lépp lu nekk ci juróom-ñaari suuf lu fi nekk lépp mbindéefam lañ moomeelam lañ ay jaamam lañ moo ko sañ soppandiku lu ko neex ci ku ko neex wa lahu aji nekk la ñeel ko alhamdu sant maanaam jaamook sant jaamook sant ñeexal na ko fil aaxirati ci àllaaxira sant yàlla jaamu yàlla la goo xam ne dañ ko jaamoo yàlla fii ci kaw suuf dee dugg aljaana jël suñ loosement continuer di ko jaamoo yàlla waaye duñ ko yëg huwa moom alxakimu mooy aji xereña ji nga xam ne mbir mu ne lay palaasam rek la koy teg alxabiiru mooy aji dañ kumpa ji nga xam ne dara umput ko dara réerut ko moo waral sax mu xam na maa yaliju lépp loo xam ne dana tabbi fil ardi ci suuf lépp luy dugg ci biir suuf ak na mu fay duggee xam na ko luy dugg ci suuf nag bëri na su maanaam ndoxu taw bi day dugg ci suuf yàlla xam na ko nit ñi ku dee wala lu dee ñi gas suuf suul ko ca nam fa nekkee lam fa nekkee yàlla xam na ko naka noonu tamit or beeg jamaa bi fu mu nekk ci suuf fu mu toll yëpp yàlla xam na ko mbell yeeg li ci aju yëpp yàlla xam na ko yenti yenti suuf yi dund ci biir suuf yëpp yàlla xam na ko wa maa yaxruju ak lépp loo xam ne dana génn ci suuf li génn ci suuf lu bëri la ndoxu taw day dugg waaye ndoxu teen ndoxu sewnde yi ndoxu mbell yëpp day génn gàncax gi baykat bi suuloon mu war a sax wa day day génn loola lépp tamit yàlla xam na ko wa maa ak lépp loo xam ne yem si dana wàcc mi ne samaa yi bàyyee ko ci asamaan luy wàcc bàyyeekoo ci asamaan ci dënn yi muy niir yi ak maanaam ci taw yi ak malaaka yi loolu lépp danañu wàccee bàyyee ko ci kaw di wàcc ci suuf tamit wa maa yaaruju ak lépp lu yéeg luy yéeg nag bëri na jëfi doomu aadama yi jëf ju baax kaw la jëm wal amalu sa maanaam ilayhi yasaadul kalimu tayibu kooku wax na ko kon jëf yu baax yi kaw la jëm lay yéeg ci kaw lépp ci malaaka yi ci ruuxaani yu nay ci ñaan yi ci jaamu yàlla yi lépp yàlla xam na ko wa moom dong arahimu mooy borom ak yërëm gi nga xam ne moo ko mooy yërëm ña ko topp alxafaaru mooy jéggalaa kon bi tamit de kon lii lépp ki ko xeeyoo dëgg ki ko xeeyoo dëgg ki ko melokaanoo dëgg moo jar sant kon gis nga tudd na sant yàlla ubbee ko saar wi euh, ndax sant yàlla dafa bokk ci ñetti jaamu yàlla yi nga xam ne danañ ko jaamoo yàlla ci suuf dee dugg aljaana continuer di ko jaamoo yàlla loolu ñetti jaamu yàlla rek la benn bi ci yàlla la jëm ñaar ya maanaam ci ñun la jëm bi jëm ci yàlla mooy sant ko boo demee ci rimaax bu Cheikh Omarul Fuutiyu dafay wax ne walahul hamdu fil ula wal axira li ci yàlla na mu mooy sant yàlla dañ ko jaamoo yàlla ci kaw suuf dee dugg aljaana continué di ko jaamoo yàlla moo tax kon mooy walahul hamdu fil ula wal axira waaye nag mu ne jaamoo yàlla ga foofa day yomb ci ñun comme ni sa nooy yombee ci yow ba yëgoo ko foofa sa sant yàlla ga noonu lay yombee ci yow doo ko yëg du am benn taklif benn toggeel du ca nekk bokkut ak yii ba ba tey ñaari yeneen ñaari jaamu yàlla yu jëm ci ñun mooy denki soxna denki soxna ci jamonoy aadama la xewam du xewi ba ba biir aljana ku dugg aljana dib jullit moo xam góor nga wala jigéen nga booy jigéen dañ la denc booy góor danga nga denc alquran wax na ko walahum fiha azwajun mutahara da ko bañ ba nakkiiraal ko soxna yi dañoo bëri ñii ne man da nga am lu ma téeméeri junne soxna ñeen ñeneen ñeenti junne ñenn ngeen ne classe bi ñeenti junne bale téeméeri junne bari na moo tax ma ne ragal wujjee ñàkk xam rek la comme yow euh, benn jabar moom fii rek la xew ci àdduna waaye aljana kenn du fa am benn jabar kon nag su boobaa kon nga tàmmuwaale ko fii boo duggee aljana mu gën a oyof dana ci baax beneen bi tamit mooy ziyaarante toog rek def délégation dañu ziyaara ji diw dama ko sopp ci yàlla kooku tamit maanaam du jeex bu yowmal qiyaamee danañ toog rek def délégation ne dañu ziyaara ji yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dem ziyaara ji Muusa dem siyaara ji sayduna isa sayduna ibrahim dem siyaara ji suñu mag ñu baax ñiñ xam ak ñuñ xamul ñépp nag kon maanaam siyaarante ak sant yàlla ak denc soxna ñooy ñeenti jaamu yàlla yiy des continuer ba aljana duut luy jeex kon loolu lu jar a bàyyi xel sant yàlla nag am na doole jullit bi ba ba muy jëlee loos maam ci aljana juróom-benni sant yàlla moo dox diggante moom ak aljana benn bu ci ne maanaam ci juróom-benni sant yàlla yi alquran tudd na ko bi ci njëkk mooy bu nit ñëpp dekkee taxaw ci péncam yàlla ma ñi bon ak ñi baax ñëpp taxaw foofa yàlla day wax ne wamtaazul yawma ayyuhal mujrimuun yéen kàccoor yi xam ngeen seen bopp génn leen ci gibbi biir ñu baax ñi foofa rek nag nga gis gaa yi yolos yolos yi ñu bon ñëpp génn dem taxawee benn côté su boobaa nag yow boo bokkee ca ña génn da nga sant yàlla foofu mooy première sant yàlla gi nga njëkk def ne alhamdulillahi alladi najjaana min alqawmi zalimin waaye waaye ñun ñu ngi sant yàlla mi ñu musal ci nit ñu bon ñi ba nga xam ne ba yàlla na génn leen ñun bokkuñ ci xam nga tey am na melokaan woo xam ne ku koy def soo su waay ñëwee na xam leen seen bopp yéen ñu jëfandikoo nangam rek ñëpp xam nañ seen bopp ndax boo génn rek ñu weer la kooku mooy première sant yàlla bu buñ buñ taxawee ca péncam yàlla ma ñun ñëpp yàlla ne kàccoore bu leen ma fontoo xam ngeen seen bopp génn leen ci ñu baax ñi gaa yëpp yolos yolos yi ña ca bokk génn ña ca des dañ sant yàlla ci alhamdulillahi alladi najjana min alqawmi alxaalimin ñaareel bi tamit bu ñu paree ca taxawaay booba war a dem jéggi siraat war a dem jéggi siraat mu nekk lu dansé mag ñi di koy misaalee ne moo gën a saw moo gën a sew cunqóoru fas moo gën a ñaw lan set moo gën a lëndëm guddeeg ox set moo gën a rag lu jaanu ñàngoo ju ñu gaañ nga war koo jéggi kenn ko ne sa jëf foofa nag boo jéggee traversé ko da nga sant yàlla ne alhamdulilahi alladi adhaba an na alxasana alhamdulilahi alladi adhaba an na alxasana ñun dee ñu ngi sant yàlla mi nga xam ne demee na suñ njàqare gi loolu doy na njàqare ku war a jéggi siraat da nga war a jàq ñu jéggi siraat ba pare nag bala ñoo dugg aljaana am na benn place benn déeg bu nga tuddee maaul xayaati foofu la ñuy njëkk a sangu naan fa foofu ku fa sangu naan dootoo deexeeti loolu war a dootoo dee waaye foofu feeg feeg feeg naan goo ca danga maanaam weesoo goo dee moo sax dee mii sax di rey nit ñi dana dee yonentu wax na ko malakal moo fi dana dee dee mi rey nit ñi yàlla di ko dugal nit ñi mu dana dee bu demee ba gaay jël seen losement ci aljana waa safara jël seen losement ci safara yàlla jël mu ne dee mu nataal ko mu mel ni mu mel ni euh, mu yore meloom kuy mu am xar yàlla tërlu ko ci diggante aljana ak safara ne hee yéen waa aljana nekk leen ci bànneex dootu leen deeti yéen waa safara nekk leen ci naqar dootu leen deeti dee mi doon raye sax mi ngi nii ñuy rendi am ne foofu kenn du deeti moo tax mu ne summa laa yemutu su boobaa nag kon bu ñu demee ci maawul xayaat ñu sangu fa maanaam nag boofa nag gars yi dañ santaat sant gu rëy la def ñu wax ne alhamdulilahi alladi hadana li hada wa ma kunna li nahtadiya lawla an hadana allah kon boobu tamit dana jar sant beneen bi tamit suñ passé maawul xayaat malaa yi na commencé ñu accueillir war ñoo dugal aljaana di wax ko ma welcome yegsi leen yegsi leen sa borom ne na ngeen yegsi foofu nag dañ sant ne alhamdulilahi alladi ahallana daaral muqaamati sant yàlla mi ñu wàccee tey ci place bi buñ demee tamit ba nga xam ne dugg nañ nag ba wéeru ca canapé ya maanaam ñi wéeru ca fauteuil ya ñuy sànni seen tànk ya ñuy jaaxaan foofa dañ santaat lu ñuy santaat alhamdulilahi la ñuy saddaqanaa wa'dahu wa awratanaa al arda natabawwa'u foofa dañ sant buñ demee nag ba ñu servi ñu ñam yi gaa yi yore ak ataay di joxe daan mu xal la du na foofa nag bu ñu servi ñam yi nag bu ñam yi ñëwee nag danga santaat foofa nag lañ fay santee mooy alhamdulilahi rabbil alamina fekk tamit mu jot li ñuy njëkk a servi nag bu ñu duggee aljana mooy resu jën aljana ñam wi ñu yàlla njëkk a mooy resu jën kon ndeke resu jën am na solo de maanaam jar naa fonk ndax yàlla moom la ñu njëkk a teralee bu ñu duggee aljana kon nag juróom-benni sant yi moo dox suñu digganteeg biir aljana ak xéewal ya yàlla nañ ko sant ñun ñëpp ci barkeeb Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëpp yàlla nañ wax juróom-benni sant yi boo demee ci ruuxul bayaan euh, ca xaajab juróom ba ci xëtam ñaar fukk fanweer ñeent da nga ci fekk lii may wax juróom-benni sant yëpp nekk ci moom ci bopp sax moo tax mu ne alhamdu melowu sax te rafet lillaahi aji sax la ñeel yàlla alladi yàlla ma nga xam ne lahu aji nekk la ñeel ko maa fi samaawaat nekk ci juróom-ñaari asamaan wa maa fil ardi ak lépp lu nekk si juróom-ñaari suuf wa lahu aji nekk la ñeel ko alhamdu sant buñ koy jaamoo fil aaxiri ci àllaaxira wa huwa moom yàlla alxakimu mooy aji xerañe ji nga xam ne mbir mu ne palaasam la koy teg alxabiru mooy aji dañ kumpa ji mu xam na maa yeliju lépp luy tàbbi fil ardi ci suuf wa maa yaxruju ak lépp luy génn min haa ci suuf wa maa ak lépp loo xam ne yéen si lu dana wàcc mi ne samaay bàyyi ko ci asamaan wa maa yaxruju ak lépp luy yéeg fiyaa ci asamaan wa huwa moom arrahimu mooy yërëmaa kon ba ci ña koy topp alxafooru mooy jéggalaa kon ba de gis nga yàlla mi lim def ni mu réyee ñépp war koo gëm war sant war koo fonk gaa ya def beneen xaaj taxaw fa fële di ko weddi ne bis penc sax amut yàlla day wax rek commencé di weddi moom lay teg si nii moo tax mu ne waqaala wax na ladina ne nga xam ne kafaroo weddi nañ alaxira ak weddi yàlla ne laa taatinaa duñu dikkal mukk saatu bis ci bis penc amut yàlla rek day wax rek loolu lañ gëm yàlla nag ne qul waxal yow yonentu bi ne wa rabbi ne balaa akay wa rabbi gëñ naa sama borom ne la la taatiyannakum wallaahi bis penc dana dikkal leen gëñ naa ko sama borom kuy sa borom mu ne alimul xaybi mooy aji xam lu fàddu la comme ni mu xamee lu feeñ sama borom mooy kan mu ne mooy koo xam ne laa yaxsubu du fàddu anu wëlif ko misqaalu zaratin kempem pap sànqalañ fi fi samawaati bu nekk ci juróom-ñaari asamaan wala fil ard caake nekk juróom-ñaari suuf lu tuutee ni pepp sànqalañ fa nekk ci suuf ci asamaan lépp yàlla xam na ko wala asgaru caake lu gën a tuuti min ko ca loolu tamit yàlla xam na ko wala ak caake lu gën a màgg loola gën koo xam na ko loolu lépp lu gën a màgg ak lu gën a tuuti lépp boo demee illa fikra lu mu nekk ci téere mu binun bay aji de ma ngi ca lawhul mahfuz yàlla dara dafa bëgg wax ne kulliyaat yi yàlla xam na ko mais gis uyaat yàlla xam na ko mbir mënu koo réyee ba yàlla ñàkk koo xam mbir mënu koo tuutee ba yàlla ñàkk koo xam kon yàlla topp na mbir yu mag yi waaye topp na tamit détails yi bàyyiwul dara xam nga léeg-léeg nga topp yu mag yi ba bàyyi détails yi léeg-léeg tamit nit ci topp détails yi ba bàyyi yu mag yi yàlla nag loola dara lépp la topp dara réerul ko mu def nag alquran ca dayoo toftale ñaari xaaj xaaj bu njëkk bi ñoo santoon juróom-benn sant yi bëggal seen musuma ci aljana xaaju ñaareel bi mooy ñuy weddi ne alaaxira amul sax bay aljana ak safara di am gëm loola nag yàlla nag ne eh, da li tax ma def lii lépp mooy damaa bëgg a fay ñi weddi safara man ma jël tamit ñi sant ma fay leen aljana moom lay wax si nii moo tax mu ne lii gis yee ngir na fay alladina nga xam ne amanoo gëm nañ yàlla gëm alquran wa amiloo ñuy jëf saalihaati farataaki naafila yi ulaayka yooye gaa yi lahum aji nekk la ñaan leen maxfiratum njéggal wa risqun ak ak ak pagu wërsëg karimun gu tedd te mooy xal janna dugg fa ak xéewal yàgg gis yàlla waaye walladina ña nga xam ne sax aw dox nañ fii ayaati naa ci yàq jéem a yàq suñuy kawtee fii ci alquran mu ajisina ñuy nattale seen ak lot seen ak rëcci ñuy nattale seen ak rëcci foo ne mën nañ maa rëcci fii ci àdduna perte nañ de ulaayka yooye gaa yi dal na seen kaw azabun mbugal mu ngir gisin gi gën a bon ci mbugal moo xam ne alimun borom ak méttital la mbugal mi gën a bon moo dal seen kaw moo xam ne borom ak méttital la kon ñu ñaar ñaari xaaj lañ ñi gëm bay sant yàlla di jëfandikoo la yàlla santaane aljana yàlla nañ ca bokk ña weddi ba nga ba nga jëfandikoo la yonent bi indi ak la ca aju ñooña safara lu bon la ñuy def foog ne mën na nuuru ci yàlla déeréet yàlla dalee ni euh, bàyyi rek li muy li yonent bi waxoon wala yàlla wax ko ci hadiisul qudsi yu danaay muñal tooñkat ba nga xam ne su ma ko jàppee du rëcci donte yàlla mës ta jàpp kenn muy rëcci sax waaye waxin la léegi nag mu ne ko bii nag aaya ji tegu ci day defal yonentu bi ne ko na sa xel dal maanaam lii ma jox la muy alquran borom xam-xam yàlla jiitu woon jàng tawreet ak linjiil xam nañ ne alquran dëgg la ñi nga xam ne nag xamuñu dara di ummi yi na ñi di ay musrikuuna mosu ñoo wàcce ci ñoom benn téere ñooñu bu ñu la weddee bu mu la naqari borom xam-xam yow xam nañu ak yow moom la koy wax ci moo tax mu ne ko wayara wayara xam na ladina ñi nga xam ne uutoo joxeef na leen al ilma xam-xam te mooy ñañ wàccee woon ci ñoom téere ya xam nañ ne alladi la nga xam ne unsi la wàcceef na ko ilayka jëm ci yow muy alquran min rabbika mu bàyyi ko sa borom huwa moom alxaqu mooy dëgg wala neexee nga def ko xasru ne huwa moom dong alxaqu mooy dëgg ak lim làmboo wa di dana ginde moom alquran ila siratil azizi jëme ca yoonu borom ak tedd nga ko di yàlla alhamidi ka de kuñ sant wa qaala wax na li nga xam ne kafaroo weddi nañ ci sabootu yonent bi naan hal nadullukum ndax du ngeen ñëw ni tegtal leen ala rajulin ci góor koo xam ne yu nabbikum dana mu solo leen ida muziqtum ndem mu na leen bu ngeen deexee ba seen yax yi fënax ci seen biir bàmmeel bu ngeen mu nga tee kullu mu masaqin bépp ak mu nga te innakum naka yéen la fi xalqin aji nekk neen ci bind din bu beese mushrikuunay màkka yi waa Quraysh ñoo doon wax loolu gaa yi kuñ gis ne leen waaw am na benn su ngóor su nekk fii ne bu ñu dee ba suñu yax yi fënax yàlla danañu dekkilaat dañu nekkaat nañ meloon am na wax fii kaay leen ñu yóbbu leen fa yàlla ne leen da ngeen a dof rek ci leen sos te xoolul leen fenn su leen rayee ne mën naa leen a dekkil waru leen koo weddi lañ doon weddi nag ne waaw kii li muy wax ñaar rek ñaar a mën a am te ñaar yi ko ci wax kenn du la déglu benn li muy wax dafa sosal yàlla waaye yàlla waxu ko wala bu li muy wax dafa ànd ak saddum jinne àndut ak xelam nit nag bu joxee xibaar fekk jinne ko jàpp xibaaram yorut nit bu waxee tamit fekk la mu wax àndut ak saddum jinne mais dafay sos kenn du ko kenn du ko mën a gëm ñaar yooyu lañ sosal yonent bi lay wax nii moo tax mu ne iftara duutal na ñoom lañ wax ne duutal na allah waral yàlla kasiban ay nar am wala bàyyil sax bihi aji nekk la ci moom jinn jinnatun sax dum jinne waaye déet li amu ci ban li fi nekk la dina ñi nga xam ne laa yuminuuna gëmuñu bil axira ci àllaaxira fil azaabi dañ nekk ci mbugal mi nekk nañ ci mbugal mi wa dalaali ak sànku te ba'iid gu sori dëgg de afalam yaraw ndax gisuñu ilaa maa bayna aydihim li leen féete kaw te mooy asamaan wa maa xalfahum ak li leen féetee suuf li leen féetee kaw mi ne samaay laala moom asamaan la maanaam wal ardi ak la leen féetee suuf mooy laala moom suuf la yàlla ne in nasha bu ñu neexoon nax sif ñi ñu ñu ñu ñu labal bihim ci ñoom al arda suuf bu ñu neexoon ñu xar suuf si ñoom ñëpp ñu dugg ci ni ñu koy defee ci jamono ji aw musqit wala ñu rotal alayhim seen kaw kis fan dogit mi samaan bi bàyyi ko ci asamaan bu ñu neexoon ñu def ko inna fi dalika naka nekk na ci kaawteef yooyu ne ak ci suuf laayatan kaawteef guy tegtale carte nag yàlla ga waaye ki koy jariñoo li kulli abdin yàlla na bépp jaam mu ni bin bay delluwaa kon ci yàlla rek moo mën a jariñoo loola mu ne ñii dañoo gàtt xel bay sosal yonantu bi ne xibaar yi da koo wax ci lu dul dëgg wala ñuy sosal yonantu bi ne xibaar yi da koo joxe ànd ak saddum junne te ñaari xibaar yi benn du ci mën a wér waaye daal li wér dañoo gëmu rek te képp ku weddi àllaaxira weddi yàlla yaa ngi ci sànkute yaa ngi ci mbugal mu rëy rëy mu lay xaar xanaa ñoom dañoo xamul ne su ma leen neexoon tey duñ fanaan maa ngi leen bàyyi ci kaw suuf ñuy dox su ma neexoon xar suuf si ñu dugg ci biir alku su ma neexoon asamaan si tiim ma jékki rek daane dara ci seen kaw ñoom ñëpp ñu mujj alko te loolu lépp yàlla doon ko tënku mu ngi am ci ji jamono léeg-léeg nga gis maanaam suuf yëngu lu mat ay million ci ay nit dee ñoo xam ne kenn xamut nu ñu toll seen tabax yaag seen nangam léeg-léeg tamit bu maanaam géej gi dérancé wu fa mu nekkoon mu passé ko ñëw fekk nit ñi fa ñu nekk yépp mu labal leen loolu lépp nag kon su ma neexoon ma def leen ko kon nag aayat yooye pare na ca mi ngi wax ci yonentu yàlla daawuda daawuda ah, yonentu la woon bu yàlla may mayam li ci gënoon a fës mooy kàddu gu neex baatam dafa neexoon ba bu doon jàng zabuur picc yi dañ daan ñëw di fecc dal ci peggam di di di di yëngal seeni mbagg yi maanaam di di fecc ngir kontaan yemul ci baat baat bu neex booba waaye baatam bu neex yeggoon na ci bu daan jàng montagne yi dañ daan jaayu ni doomu aadama di jaayoo montagne yi di ko jaayoo kon xam nga baatam ba jéggi na dayoo ci neex daawuda mi mooy ki njëkk a liggéey mbubbu koŋ yi gaa yi armé di ko sol dem di xeexi fekk li ko waraloon dafa defoon li ñu tuddee micro trottoir jékki-jékki rek maskaw yore benn micro topp mbedd yi kum gis ne ko waaw yow loo xam ci daawuda ñu ne ku baax la de li ko yàq rek bayti maal lay dundee dundeewul ñaqam loolu daal lañ xam ci moom benn défaut lañ xam ci moom dundeewul ñaqam ba mu waxee loolu nag mu xam ne loolu ñëpp ñu ngi ko koy jamee ci la ñaan yàlla ne ko yow yàlla may ma métier yàlla yenkiwal ko doj yàlla yenkiwal ko weñ yi weñ yi tey sa weñ gu ñuul ni mu dëgëree da ko daan leem ni ngay leemee sa yére bi lu ko ci neex mu defar mu ci ràbbu ay mbubbi koŋ di ci liggéey lu nekk jël loola nag di ko jaay di ko dundee ci ñaqam moo tax yonentu bi de lii ki ki yàlla gën a bëgg ci nit ñi mooy kiy dundee ñaqam moo tax daawuda maanaam mu jigi li des ki dundam yëpp ñaqam la doon dundee moo tax yonantu yëpp dañoo amoon métier di ko dundee boo jëlee ku mel ni yonantu yàlla aadama baykat la woon daan bay nga jël ñaari doomam ya xaabil kii sàmmkat la kii baykat la moo taxoon ba ba war a jaamu yàlla kii joxe gàtt kii joxe tamit dugub jam amoon nga jël tey ku mel ni yonantu yàlla euh, noox moom moomu maanaam mënise la woon moo moo yett gaal gi mu duggoon ku mel ni Idrissa tailleur la woon mooy ki njëkk a ñaw yëre ñu sol mooy Idrissa moom tamit bindkat la woon nga jël tamit noonu nga jëlee ti yàlla Isa danaan ràbbu teng-teng ak ku sa dàll yàq nga jox ko mu defaral la ko boole koog di woote nga jël tey ku mel ni ti yàlla Moussa sàmmkat la woon ba ci sàmmu sax ci la amee soxna anun ki xaka ihdab na tey haatay ni ala an taajurani thamaniya xijajin fukki at wala juróom-ñetti at mu sàmm door am door a mën a am soxna ku mel ni sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam def na mi maanaam sàmm na ràng nañ ko marchandise mu dem été ji ca Cham loola sax la ca ruusee ci la takkee soxna su ko defee mu gi mu ne yàlla woo woomale na ma nag sama jaas yi ci wàllu xare yi kon mbooleem yonantu yi dañoo am métier moo tax diina ji ku ci bëgg a liggéey dangaa war a dangaa war a am métier waaye boo yaakaaree ñi ngay wax ñu war laa teral dëgg du fa nekkati nit ñi buñ la yaakaaree buñ la yaakaaree ci dëgg yow nga yaakaar leen ci seen wërsëg jaayante rek moo fay nekk moo tax nag boo ne sëriñ laa taamuloo métier say taalibe jar nañoo yërëm maanaam fuñ toll da nga leen sonal da nga mujj sax sëriñ bi bu maanaam taalibe buñ seenee sëriñ ba daw wala bu leen sëriñ bi wooyee ñu xàmmee téléphone bi maanaam coupé seen téléphone yi te loolu may wax ñu ba leen koy dund am na ñoo xam ne duñ jël seen numéro sëriñ ndax lu wax rek ñu ne maanaam sëñ bi daf may sonal li may teg mënuma ci dara ko defee kon nag euh, nit day am métier diine du métier diine kenn du ko métier dangay da ngay am sa métier mooy dundee jàllar bi ko am loo xam ne door door a mën a ñoŋeel sa diine ji waaye boo bëggee jël leen teg ko ci rek maanaam du mujj sotti kon Daawuda bi mu waxee dañ ne ko defa bi ñu xam si yow daal mooy ñàkk métier keroog la ñaan yàlla yàlla jox ko métier muy commencé di liggéey baatam neexoon wax naa la ko buy jàng picc yi di fecci buy jàng tamit montagne yi di di di di jaayoo ànd ak moom te njàngam mu neex ma loolu lay bëgg wax si nii moo tax mu ne wala qad aataynaa wallaahi sa dëgg-dëgg joxoon nañ daawuda daawuda min ki ñun faddalan ngëneel ngëneel la mooy ñu ne ko yaa jibaalu imaanaam yaa maanaam daawuda faddalan ñu ne ko mu ne yaa jibaalu yee yéen doj yi daawuday wax aw wi bii dellu leen maawu ànd ak sàbbaal ya dee leen sàbbaal sàbbaal di ànd ak man wa tayra ànd ak njanaaw yi wa alat naa nooyal nañ la foo ñeel ko alxadiida weñ gu ñuul gi weñ gu ñuul ko dëgër lool daawuda di ko di ko leem comme ni ngay lemee sa yére ñu ne ko an eey amal liggéeyal saabixaatin mbubbi koŋ yu jot liggéeyal ay mbubbi koŋ yu jot a jot wa qaddir na nga nattale bouton ya fi sardi ca ràbb ak mbubbu koŋ ya bouton ya tolloog moom bu mu ëpp bu mu manqué su ko defee nañu ne wa amaloo liggéey leen saalihan jëf ju baax daawuda ak sa ñoon yi inni naka man basirun aji gis laa basirun aji xam laa bi maa taxu leen xam yéen a koy liggéey dana rafet kon ab liggéey boo koy def yàlla na gis naa ko tahdid la yàlla am la mu bëri li ngay def maa ngi koy gis kon li muy tekki na ko rafetal ku bëgg liggéey sa liggéey baax da ngay koy da ngay koy xereñe rafetal liggéey bi dugal ca lu ca bokk gé génnee ca lu ca bokkut su ko defee nga def ko ci qualité boo xam ne bu ama am solo la su boobaa loolu tamit lu am solo la moo tax yàlla dafa wax a xereñal sa liggéey bi li ngay liggéey maa ngi ci jàkkaarlook yow kon yow tamit métier moo mën a nekk di ko ci liggéey nañ ko xereñe di ko rafetal su boobaa rek métier ma dana la teral te métier du xeebu saa yoo xeeboo sa métier lu gën a xeebu rek ci ngay dem soo fi nekkee xeebu ne man mag mu toll ni man ma nekk fi damay jaay socc wala may jaay tàngal ci sàcc nga jëm sàcc na yaakaar naa moo gën a xeebu loola wala da ngay mujj di tagg nit ñi tagg ku tagguwul wala xas ko xasuwul ngir bëgg a am ci moom dara doo jëm fenn fu nit ñi juboo fu lu waay xoote nga dem ca di seet loo ca mën a amee dara rek bu paree nga demaat fële bu tayee nga yëkkati ñi boo liggéey maanaam nga nga daane ñële ndax loolu rek ci nga mën a dund waaye boo amee sa métier boole koog doylu ku ànd ak yow baax na ku àndut ak yow nga ànd ak yàlla doo faale kenn ca li nga nekk waaye ku ne damaa bëgg jàpp ci dara te jàppoo ci dara du mu du mujj fenn maanaam ku bëgg jàpp sa diine mu wér da ngay jàpp ci dara waaye boo jàppul ci dara ay pexe rek nga bëgg cee dund maanaam sa diine du rafet sa ngor du rafet sa askan da nga boo bëggee sonn boo bëggee noppal demal nga wuti métier métier dafa baax i'malu ala daawuda shukran def leen ngeen liggéey yàlla loolu la bëgg léegi nag daawuda mbiram jeex na mi ngi wax doomam ju baax ji di suleymaan suleymaan tamit mat na daawuda doom may na man mat na ko doom ci lu bëree bari jaaroon nañ ci xisaam yi waxoon ci moom tamit nii baayam yàlla tàggatalee ko weñ gu ñuul moom yàlla da ko tàggatal përëm daan jël përëm bi nii di ko leem comme ni ngay leemee sa yére yi di ko ruyal di ca liggéey li façon liggéey boo xam ne bu yéeme la yàlla tàggatal na ko ngelaw ngelaw loo xam ne tey soo bëggoon tey dem Amérique léegi léegi mu bu jëlee ngelaw li rek maanaam gars yi teg ci seen seesi rek mu yóbbu leen moo rempa avion moo ko remplacé moo tax avion yi ñu dawal Souleymane moo ko fi njëkk am avion ba nga avion ngelaw rek la mu jël la yóbbu gaa yi léegi yóbbu la Amérique yóbbu la Italie foo bëgg a dem moom tamit kon moo tax gis nga lépp bépp may gu yàlla mayoon ab yonantu ba ñëpp di ko xéemee yàlla far na ko may xeetu yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam waaw daawuda comme li ko yàlla taggee mooy wali suleymaan eh, wali suleymaan riixa xuduwuha shahrun wa rawaaha shahrun ñun na xeetu yonent bi am nañ avion ba tey tamit Moussa lu ko yàlla mayoon ndox moom traversé woon labut ay yàlla defal na ko xeetu yonent bi bato yeeg féeri yeeg gaal yeeg yëpp gaa yi ngi ci teg seen bagage yi fu na ñuy dem euh, daawuda mi ak weñ gu ñuul xeetu yonent bi li ñu liggéey ci weñ gu ñuul kenn dafa xam ni mu toll liñ ci def kenn xamul ni mu tollu ci wàllu xereñ kon su ko defee kon nag euh, Suleymaan yàlla mayoon na ko tàggatal ko përëm yàlla tàggatal ko ngelaw yàlla tàggatal ko jinne yi li ñuy bon bon daan ko liggéeyal jinne yi ñoo ko daan tabaxal ay istati booba ci charia am tabax istati xaraamutoon waaye istati yi nag xew dëkk bi foo dem wala ci réew yu jullit ñi mbedd moo dem fekk fa istati bii nekk istatu fas wala bii nekk nit yeneen yi ci xaju lépp dafa xaraam yonentoo wax ne képp koo xam ne dangaa yett istati te la nga yett nekk borom rooxu borom rooxu nag nit ak mala yeeg njanaaw yi dugg nañ jëmm ji lépp mat moo xam danga nga koo yett moo xam da nga koo muul moo xam da nga koo tabax ba nga xam ne rooxu ga rek a ca des bu yowmal qiyaamee yàlla dana la togg nga wal ca roox doo ko man mu ne la mu bool laag moom dugal la safara yàlla dafa am fu la dafa man ngay toppandoor na mat maa bind lii def lépp nga ne man ngay toppandoor def ci rooxu doo ko man su ko defee mu bool laa loolu dugal la safara moo tax sax néeg bu am istati malaaka du fa dugg yonent bi néegam rek maanaam Aïcha néegam mos naa am njegenaay boo xam ne darab bi lañu jël la maanaam euh, dessin ci euh, mala noonu comme ni ko jigéen ñi defee léegi rek ñoo koy ràbb sax ñu def ko seen njegenaay léegi ñu def ko seen darab yi waaye mu toog toog lu yàgg malaaka mi ñëwut mu laaj jibril mu ne ko ñun duñ dugg duñ dugg ci néeg boo xam ne dafa am dafa am dafa am estati bañ demee ñu fekk fa loola ma tax kon dañ ko miin mu bari loolu léegi léegi léegi nga dem ci buntu biti yi gaa yi jaay nga gis xale bu góor bu ñu solal ba yow boo boo amul seelu sa da ko jox loxo sol na kabam sol nangam sol léppam wala xale bu jigéen boo xam ne solal nañ ko loolu lépp dafa xaraam sa sa marchandise mën naa jar ci lu dunul loolu dañ koo miin rek yooyu yëpp kon istati yeeg tasaare ko ci dëkk beeg bunti palaas yeeg yi nekk ci biir néeg ñu def koy ay meuble yi nga teg ci kaw télévision beeg yëpp loolu lépp dañ koo miin waaye dafa xaraam yow mi koy jënd yow mi koy yett ak yow mi koy yettaloog yow mi koy liggéeyloog yëpp dugg nga ci biir bàkkaar ba bu yowmal xiyaamee yàlla dina la togg ngawal ci roox doo ko man mu bool laag moom dugal safara kon loolu jar na bàyyi xel daw ko moo tax mu ne wa tàggatal nañ li suleymaan a ñeel suleymaan a réexa ngelaw li ghuduwuha uppinu uppinu nga uppinu xëyu ngelaw la shahrun doxab weer la bu xuppee ci xëy rek doxab weer maanaam uppinu maanaam ngelaw nga uppi nga uppinu ngoonu ngelaw ga dox doxab weer la wa arsalnaa da nga koy firee maanaam ruyal nañ wa arsalnaa ruyal nañ la ko ñeel ko aynal xitiri euh, bëtëb maanaam euh, euh, kii përëm mu jël përëm bi di ko ruyal wa minal jinni am na ci jinne yi man ñoo xam ne yaxmalu dañuy liggéey day na yëdda yi ca kanamam ña ngi koy liggéeyal bi isni rabbi yi ci ndigalal boromam la rek waaye du ndigalal moom de te jinne yooyu wa man yasex képp koo xam ne jénga na minum ca ñoom an amrina wali suñ ndigal nuziqhu danañu mosal ko min azabi sairi ci mbugalam safara de kon moom li ko yàlla tàggatal rëy na tàggatal na ko ngelaw li foo bëgg a tukki ngelaw li yóbbu la mooy avion yi rek mu daan yóbbu booba yonantu yi borom xam-xam yi jël seen i sées ya teg ko ca rek ngelaw li départ yóbbu la fi nga bëgg a dem léegi bu ko defee tamit lu doxab weer ki sa tànk bu xëyee mën na faa yegg doxab weer ki sa tànk bu xëyee bu ngoonee maanaam mën na faa yegg yow daal boo départoon weer di dox fee ba ngay yeggee lu toll noonu kon lu mu néew néew fii boo doxoon weer balaa balaa weer wee dee sa nga yegg France moom nag bu xëwoon tey euh, diggante 4 heures balaa balaa balaa 6 heures rek jant bi rek maanaam ngelaw la yóbbu la foofa kon mooy avion rek daanaka loola yàlla tàggataloon na ko moo tax ci ngelawam lii sax mos naa toog moom malakal mawti seet si ko waaye yore melaw nit am benn waay bu dend ak Suleymaan malakal mawti xulli ko bët yi rek waa ji dee Souleymane ne ko waa ji daal bëtam yi may xool ñemewuma ko damaa bëgg nga wax sa ngelaw li léegi mu yóbbu ma France rek ngelaw li Souleymane dimbale ko ngelaw li yóbbu ko avion bi léegi mu jël vol bi rek mu yóbbu ko France moom daal ba muy wàcc rek dajee faak malakal ti mu jàpp rooxu gi Souleymane nag ne ko lan la mu ne ko man waa ji yàllaa ma wax ne ma midi demi war na ko fekk suufu France te foofu laa war a jëlee rooxu ga te moom fu mu ne nii mu ngi fii nii Sénégal lu ko war a mën a yóbbu foofu moo ma jaaxal moom nag ndeke la ko war a yóbbu moo ko demandé ci Souleymane loola yóbbu ko <laughs> moo tax kon léegi-léegi ngay ngay ngay ngay wut loo xam ne fekk moo lay yóbbu ba mu yegg ba yegg rek mu jël roxo ga wa maa tadri nafsun maadaa taksibu xadan wa maa tadri nafsun bi ay ardin tamut ba mu yeggee rek mu jël roxam nga mu dee kon maanaam yàlla dimbale woon na ko tamit tàggatal ko jinne yi ñu ko daan liggéeyal daan ko liggéeyal ay istati di ko liggéeyal ay ay ay ay ay ay jumaa di ko liggéeyal ay jàkka loolu lay wax si nii liggéey ki ko doon jinne yi di liggéeyal moo tax mu ne na daanañ liggéey lahoo ñeel ko maa yasaaw lu ko neex min mahariba ci ay jàkka jamoo mihrab mooy fi imaam ji taxaw lañ koy wax moo gën a rafet ke jàkka ji rek moo tax mu tudd ko wa tamathila ak i ay istati istati daganoon na ci shariaam waaye daganu ci shariaam yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa jifaanin daanañ ko liggéeyal ay bagaan bagaan yu mag yuñ daan yàq ñam yi nit ñi di ko lekk moo tax mu ne bagaan yoo xam ne kal jawaab yi dafa rëy ba mel ni ki mbalka waqu daa daanañ ko liggéeyal ay kaw diir ci ni rëy rëy raasiyaatin yoo xam ne dañoo sax dëgër ak yi seen tànk ya kenn mënu koo yëkkati lii de jinne yi ñoo ko ko daan liggéeyal yàlla ne imaloo liggéey leen ala daawuda yéen waa kër daawuda yi sukkuran ngir sant yàlla waaye yëg naa ne nag wa qalilun aji néew la min ibaadiya sama jaam yi shakooru santaakon bi shaakiriina yi bëri nañ waaye shakoor moo ca néew saakir ak sakoor duñ benn saakir mooy koo xam ne euh, maanaam saakir moo gën a moo gën a moo gën a moo gën a bëri sakoor yombut sakoor mooy koo xam ne bu la yàlla defalee bu la yàlla defalee nga sant ko bu la yàlla defee tamit nga sant ko moom daal def ak defal nga yemale kepp mu yàlla dogal rek gërëm naa ko alhamdu alhamdulilah ala kulli xaal man daal sant naa yàlla nu mën a mel bu la yàlla rayale bu la ñàkkale bu la feebaralee bu la tor bu la lu la maan dal rek nga ne man daal sant naa yàlla kooku mooy shakuur bëriwul shaakir nag moo gën a bëri mooy bu la yàlla defee nga sant ko bu la yàlla defalee nga sant ko bu la yàlla defee nag nga jàpp sa ñaambur noppi moo tax shaakir yi nañu ñoo gën a bëri waaye shakuur nag moom yombul mu neex ak mu naqar yëpp man sant naa yàlla loolu yombul de moo tax yàlla ne wa qalilu min ibadiya shakuur kon gis nga ñoo am jinne yi ñoo ko daan liggéeyal mihraab yi di ko liggéeyal baga bagaan yi bagaan yoo xam ne boo demee yow muy togg war cee sóor war war ceeb bi ci ay escalier ngay yéeg xam nga ne booba bagaan rëy na maanaam kaw yooya kaw day am escalier boo bëggee soor ceeb bi yow ci bopp da ngay yéeg ci ay escalier ñi lay jot li saako yi nga door a mën a sóor ngir ngir maanaam rëyaay ga su ko defee benn benn benn kaw boo xam ne mën naa jël lu ëpp 30 ñu jël 30 gëléem sóor ko ci ndoor xaw ma nag ban ban ban ban ban kudd moo koy moo koy moo koy yëngal <laughs> kudd gi koy yëngal cunwaar gi koy yëngal jar naa laaj su ko defee paree ñu yàq ko nag yonentu amoon na bagaan bu rëy moom tamit xarraa lañ ko daan tuddee lu ñu mosaan a togg ci foofu lañ ko daan sotti ba pare door a door a jëlee ci boobu nag di yàkk ci yeneen bool yi moo tax bool bu rëy la woon boo xam ne bagaan bu mag la mënoon naa jël kilo yu bëree bëree bëree bari ci ay ceeb ay saakooy ceeb yu bëri su paree na ñu door a ñu door a yàq kon nag Souleymane Souleymane ngu yàlla jàggatal na ko jinne di ko liggéeyal ay ay juma di ko liggéeyal maanaam ay mihrab di ko liggéeyal ay bagaan di ko liggéeyal ay kawdiir ñu jël loola maanaam di ko jariñoo moo tax sax ci sànce juma ci la génnee àdduna moom lay wax si nii sànce juma ji da ba jinne yi saay-saay lañ te booba tamit nit ñi dañoo gëmoon na jinne yi xam nañ xam nañ xam nañ lu nekk ci kanam waaye lu passé fàtte nañ ko xam nga lu nit ñi dañ koo gëm ne jinne kay moom lu mu reeree démb sa xamu ko waaye suba moom lu ca xew xam na ko yàlla na bëgg a màbbu xelaat bu mu ne du dëgg loolu la bëggoon yàlla wax ne du dëgg léegi nag euh, Suleymaan euh, baayam moo commencé woon baytul muqaddas mu yonentu yàlla daawuda waaye sànce ba parewut nag moom nag mu door a mu door a mott mu door a war a mottali sànce jàkka ja baytul muqaddas waaye dem na ci ba ca mujj xilaafam la ko door a commencé ba mu koy liggéey nag mu jël ko liggéey loo ko jinne yi liggéey bu rafet fekk njëkk loola ki ko tabaxoon mooy yonentu yàlla yaquba yonentu yàlla yaquba ba mu ko liggéeyaatee suleymaan a ko liggéey suleymaan bu mu ko liggéeyaatee buxtu nasar moo koy ràppal foofa lay nekk ca ràpp ga ba yonentu yàlla yonentu yàlla muhammad yàlla yónni ko ba omar ibnu xataab mooy mujj dem toj dëkk ba tabaxaat jàkka ja foofa lay mujj di dookaate tabax booba nag ca lañ nekk ba léegi ñu koy beesalaat rek suleymaan nag jël jinne yi ñuy liggéey liggéey ba di ko di defa sànce ba ba ñu demee ba muy bëgg a pare nag suleymaan génn àdduna te booba bu ñu xamoon ne Suleymaan génn àdduna rek sànce ba foofu lay yem ndax ñoom saay-saay lañ yàlla nag nëbbu leen deex ak Suleymaan gi ñu dem ba karale dugal maanaam pentiir ko lal moquette yi monter rajo yi sonorisation bi lépp baax ba lépp pare nag ci la yàlla yebal max muy lekk yedd wi Suleymaan sukkandikoon di leen surveiller ñu ko di ko lekk di ko lekk ba yax ba yat wa euh, maanaam max ga lekk ko rek yedd wa daanu ànd ak Suleymaan daanu Souleymane génn àdduna ñoom ndeke xamuñ ca dara loola nag yàlla ne maa ngi ci jublu woon rek xamal nit ñi ne li ngeen gëmoon ci jinne yi du dëgg yéen a jinne yee xam lu lu war a xew suba xamuñ ci dara bu leen gëmati loola yéen a ñoom ñoo ma yem moom lay wax si nii moo tax mu ne fala ma qaday naa ba nga xamee ne atte nañ allee ci Souleymane almawta dee maa dallahum tegtalul leen ala mawtihi ci dee ak Souleymane ga illa daabatul ardi lu dul max max suuf rek moo leen ko xamal taakulu boobu dana lekk taakulu max googu dana lekk min saatahoo xetam wa xet woon sukkandiku la max gi ñëw di ko lekk bu ko alquran waxutoon kenn du ko gëm fa lamma xarra ba nga xamee ne daanu na moom Suleymaan di aji dee te bayanti ci la biree aljinnu jinne yene an naka ñoom law kaanu doonte nekkoon yàlla mën a di xam alxayba du fàddu maa labisoo li ko noon duñ sax fil azaabi ci mbugal mi mu hi ni may borom ak doxadal buñ xamoon ne Suleymaan dee na ñu bàyyi liggéey ba bu yàgg waaye mi ngi foo ne Suleymaan ñi leen mi ngi leen surveiller rek ñu continuer liggéey ba sànce ba pare max ga max kii ba mu daanu ànd ak yadwa sànce ba pare maanaam Suleymaan génn àdduna ñu suul ko fa kon yàlla da doon màbb loolu yàlla bu bëggee def dara dana am fu mu koy jaarale lii rek maanaam la yàlla bëggoon a jàngal nit ñi ñu xam ne li gaa yi gëmoon du du du du dëgg waaye nag euh, ñaata bi Suleymaan génne àdduna ak fi ko max gi maxee ñaata at la loola daal alquran waxut ko sunu suñu bi tamit waxut ko waaye boo demee ci lenn ci mu fassiruna yi ñu ne nag fi Suleymaan génnee àdduna ak fi mu fi fi ko max gi lekkee ba muy daanu moom moom yat wi at la waaye xam nga loolu xel du ko nangu at dafa dafa yàgg ba ëpp alxuraan daal waxul waxul waxul distance ba waxul benn fan la waxul ñaar la moom daal nee na max gi lekk na yat wa rek mu daanu ànd ak moom su ko defee nag am na yenn xibaar yoo xam ne bu ñu la ko waxee xel du ko nangu ndax nga toog di liggéey tamit lu mat at yëngatuwuloo waxuloo kenn déggul la boobaa gaa yi nga jiite nañ wax ne waa ji nekkatu fi de ca saasa gaa yi dañ ko xam suñ kilifa gi nekkatu fi de kon nag wax dëgg yàlla daal xam naa bis daal wala genn wàllu bis ak yooyu daal mooy nekk lu cay lu jaadu yàlla nag moom ci benn bis bi mën naa yenki wala max gi mu commencé koo lekk am na ñu ne sax commencé sukkandiku rek di surveiller deexagul ci la max gi moom commencé ñëw lekkaale yan wax mu génn àdduna max gi continué di lekk ba muy paree rek naanaam mu ànd ak yan wa daanu génn àdduna liggéey ba pare kon nag maanaam Suleymaan ngoo xisaam foofu la yem mu tombeek oustaz Xasan mi ngi may signal ne li amoon ci waxtu wi jeex na xam naa ñu teg seen loxo foofu bu ñu fi ñëwaatee ñi mën a dugg ci saba yi xisa bi tax yàlla tuddee ko saar wi yàlla mi ngi ci nettali histoire bu yàgg histoire bu siiw muy istuwaaru mbooloo ma dëkkee woon saba yi ca yaman nga xam ne fi mu xewee ak fi yàlla yónnee yonantu bi sallallahu alayhi wa ñeenti téeméeri at la moo tax alquran daal ñun mënuñu koo fay téere la boo xam ne day ñëw xamal ñu li paase woon xamal ñu li ñuy dund xamal ñu tamit li nekk ci suñ kanam ëllëg ba ñu jël suñu loosement ci aljana di téere boo xam ne xibaar yi jiitu woon nit ñi daan ko nettalee ni mu demee moo ñëw di ko nettali na mu gën a leeree ca na gën a jubee nit ñu baax ñañ yàqoon seen der yi alquran na ñëw setal leen ne nit ñee bon rek waaye lañuy wax ci ñoom dara amu ci ndax bu alquran amutoon derab yonentu yàlla suleymaan du du set ba péncam yàlla bu qul bu alquran amutoon derab yonentu yàlla isa du set ba péncam yàlla bu bu alquran amutoon derab yonentu yàlla yuusufa kenn du ko mën a defarat ci kaw suuf su ko defee nag alxuraan ñëw di leeral mbir moomu ca na mu demee ni mu demee lañu ñu alquran bëgg nettali benn waay dafa mas a ñëw fekk yonentu bi toog sallallahu alayhi wa mu laaj ko ne ko waaw saba i bi alquran tudd ba tuddee ko saar moom turu jigéen laam turu suuf la yonentu bi ne ko nekkul turu jigéen nekkul turu suuf waaye turu benn góor la woon gu bokkoon ci yaaram yi yàlla wër wërsëgaloon ko fukki doom yu góor juróom benn yëpp jubluwoon wàllu ndeyjoor ñoo ñaa mujj dëkk yaman ñeent yëpp jublu wàllu càmmooy ñoo ñaa mujj dëkk Sham mu ne ko nag ñeent ñi nga xam ne ñoo jublu woon wàllu fële ca Sham mooy falxam ak juzaam ak xasaan ak amilatu juróom benn yi nga xam ne ñoo jublu woon yaman mooy asdu ak ashariyuuna ak ximyar di famille bi imrul xay si bokk ak kindatu ak mushij ak anmar mu ne ko génn góor la gu yàlla wërsëgaloon fukki doom yii juróom-benn ya jublu yaman yeneen juróom-benn yeneen ñeent ya jublu saam loolu la ko sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ñoom nag ñu dëkkoon yaman bi ñu ñëwee dañoo defoon foofu ay dëkk seen dëkk yi boo demee ci faxru raas yi bëriwaay gamatoon na ñeenti junney dëkk ak juróom-ñaari téeméer yëpp ay capital lañ dëkk bu gën a naat sa morom nga ne bii la ba tax na ku daan tukki jërul ngay jënd yóbbal wala sérité ndax li ngay soxla war koo jënd dëkk bi nga jëm da nga ko fa fekk yaa ngi bàyyi ko Dakar jëm Ndar yenn bagage yi jërul jënd boo demee Ndar fekk ko fa yaa ngi jëm Kaolack jërul jënd boo demee fekk ko fa yàlla tamit nattale seen dëkk yi ba nga xam ne boo xëyee fii ci Ndakaaru mën ngaa yendu ci dëkk bi ci tegu yoon wi day am sécurité du am ay gar yu lay gaaraale du am ay agresseur du am dara tamit looy ragal lu lay dogaale foo bàyyi sa alal foofa nga koy fekk soo demee maanaam fi nga xam ne mooy Thiès nga yendu fa bëgg fanaani mën ngaa dox tamit continuer ngay nga fanaani maanaam fee nga xam ne mooy Ndar noonu la dëkk yi toftalantoo ba mu mat ñeenti junney dëkk ak maanaam juróom-ñaari téeméer dëkk yëpp ay capital lañ benn bu ne loo soxla rek ma nga foofa dëkk yi tamit nag yàlla may leen climat bu baax ba seen climat ba amul weñ foofa weñ du fa dal nit amul yoo amul jaan amul jiit amul teeñ même boo dëkkaloon ca dëkk yooya sa yaram wi wala sa yére yi am teeñ soo ñëwee ca dëkk yi ma bëgg a tudd soo ñëwee foofa rek climat ba day mujj rey teeñ ya nga mujj am jàmm yàlla defal loolu leen ñaari tool yu naat waaye tool yi mbooloo la ci namm mbooloo mu bokki tool mu mel ni benn tool yenn naat naat goo xam ne jigéen gi bu bu yenn woon peñeem dem di seeti moromam jigéenam jërul muy jël loxoom di jéem a dagg benn doom maanaam doom yi ñooy mujj daanu ci peñe bi yi muy romb day ñor bay daanu ci peñe bi balaa ñib si këram fekk bool bi fees tepp ak meññant ak fur wi kon ñooña seen tool yi naatoon na naataange gu tool noona ba tey ba léegi yegg guñ ci léegi nag ñoom fi ñu nekkoon palaasu ndox la dañoo dañoo dàq ndox ñëw dëkk saa yoo génnee ndox ñëw dëkk yàgg-yàgg ndox dana la génnee ñëw dëkk yaakaar naa ñi may déglu ñu bari xam nañ ci dara am na ñoo xam ne fi mu ne yàkkamtiwuñ yàlla ji taw ndax fi ñu dëkk palaasu ndox la bi mu nekkee palaasu ndox xuur la woo xam ne bu yàlla ji tawee ndox yëpp ak ndox yi bàyyeekoo ci xuur yi foofu lay wersi ñu nekkoon nag muy xuur woo xam ne ndox ma dafa bëri ñu am seeni gàtt seeni jur mu jigi ñuy xeexoo kenn ku nekk naañ moo gën a yey ci ah, ci ndox mi balxiis moomu ñu jàngoon mu doon takkoob yonentu yàlla suleymaan moom moomu nag moo ñëwoon fattal leen yoonu ndox yi jël ay xeer ak safara ba nga xam ne da koy lakk ba ba yoonu ndox yëpp balxiis fattal leen ko ngir jeexal coow li ñi nekk ca loola nekk ca nekk ca nekk ca mu jigéen nag seen buxaaba yi ne leen lii dafa am diir diir bi nga xam ne ci lay war a yegg loola war a yoonu ndox yi ndox jëlaat yoonam léegi tey ñu yegg ci te fu muy mun di bàyyeekoo nag janax yi ñooy mujj dindi yoonu ndox yoo ya ba mujj maanaam ndox yi yoonu ndox yi jëlaat seen seen yoon ya ngeen mujj àll ko ñu mujj ñoom nag di préparer loola jël ay muus yeew leen ci yoonu yoonu yoon yoon yi nga xam ne mooy yoonu ndox yi xam nga muus ak janax jubóowuñu waaye nag foofa muus moo daan maanaam janax moo daan ragal muus waaye ba yàlla na meet iwoyal dogalam bi muus yaa ragal janax yi dañu mujj rek janax yi ñëw song muus yi muus ya daw yi ñi rey leen ñu commencé nag di gas yoon ya di gas yoon ya ba yàlla ji tawee rek ak ndox mi nekkoon ci niir yi nekk ci déeg yi mujj yëpp naw daanu ki seen dëkk bi dëkk ba mujj indoone seen mbay ma yàqu seen kër ya mabbu ñu mujj maanaam tasaaroo mënutuñ faa dëkkati janax yooye nag janax yi gën a bon ñu tuddee janax cooy mooy boo demee ci e, borom xam-xam yi ci xayaatul xayawaan day wax ne mbooleem xayawaan yi moom rek la ci yàlla defal amul bët moom amul bët day dox rek amul bët waaye li mu ñàkk ci bët yëpp yàlla remplacé na ko ko ci nopp yu neex ak bakkan bu neex noppam yi dafa neex bakkanam neex te moom tamit fu salte rek la mën a dund te fi muy dund tamit ci biir suuf lay doon fu mën a nekk day gas ba mu xóot rek ca salte ba ca biir suufa muy dundee loola janax yooyu ñoo mujj ñëw gas seen yoon yooya nag ndox ya am yoon fekk balxiis nag bi mu leen koo eh, tabaxalee bàyyi woon na fa fukki yoon ak ñaar yoo xam ne ay jàlluwaayu ndox yi lay doon bàyyi woon na defal na fa ñetti ñetti ñetti buntu bii nekk ci suuf bii nekk kaw bii nekk ci digg bi buntu yooyu ci lañ daan jaaree léegi nag bi ñu demee nag li waral lii lépp nag mooy bi ñu demee ba beew naataange ji ñëw seen dëkk ya rafet seen dëkk ya neex ñi mujji bew yàlla yónnee woon na ki ñoom ibnu abbas ne fukki yonantoo ñett waaye yonantu yooyu amuñu woon ay téere ndax diggante yonantu yàlla isa ak sayduna muhammad sallallahu alayhi wasallam benn yonantu bu ñu yoonal bu am téere jaaru fa yi fa jaar yëpp amuñu amuñu ay téere ñi weddi leen wan leen ñooñu wax ñax ñi weddi leen ñu leen du ngeen sant yàlla seen xéewal gi ñu ne booyee booy xéewal gi bàyyee ko fi tey ñu mujj bew bew nag baaxut moo tax euh, teraanga ju la yàlla man di def mën a defal saa yoo bewee rek ñàkk ko ndax ñaar mooy xeeñ teraanga mooy bew ak tooñ te benn bi mooy waral benn bi ku beew rek bu yàggee nga tooñ moo tax kon bu la yàlla mayee ndomba tànk nga bew dugg nga gaal ak yàqule bu la yàlla mayee daraja nga beew dugg nga gaal ak yàqule bu yàlla mayee xam-xam nga beew dugg nga gaal ak yàqule bu la yàlla mayee wërsëg nga bew tamit yaa ngi ci gaal goo xam ne maanaam dana la yóbbu ci tefes ak yàqule goo xam ne ñëpp dañ la yërëm kon ñii li leen tax a yàqule seen mbooloo ma mujj tasaaroo ba yaaram yi bu ñuy léebati ci mbooloo mu mën a tasaaroo dañuy wax ne tasaaroo na ba mel ni mbooloom saba ima gaa yi tasaaroo ñi dem misra ñeen ña dem ku mel ni Qusay ibnu Kilaab jëm Màkka ñenn ña jëm Saam ñenn ña daw jëm maanaam Yasriba booba yonentu bi demagul fa gàddaay moo tax Yasriba la tuddoon aw su gi ngay dégg ak Xasraj ñoom ñooña ci foofa lañ bàyyeekoon seen famille moo tax ay arab lañ ñoom tamit ñu dem foofa dem dëkki foofa noona ca ca ca ca ca foofa muy muy Yasrib yonent bi fekk leen fa fekk dañu dem rek di bëgg a tuxu ñu fe ñu fekk fa ay yahud ñu ne leen yonent bi mujj a ñëw euh, mujj a ñëw war a gàddaay mujj ak jamono fii lay gàddaay si ñoom tamit ñu ne nañ toog nañ toog foofa xaaraale ko fa loolu moo sabab loola ñoom tamit maanaam ñi dëkk foofa nag seen tool ya nag ñaari tool yu naat yooya bi féetee woon ndeyjoor ci xuur wi bi féetee woon càmmooy ci xuur wa tool ya mujj yàqu ndox mi ñëw nangu ko ndox ma ñëw nangu seen kër ya ñi mujj tasaaroo mujj nag tool ya mujj sax gàncax gu xam ne kenn bëggut ko te gannaaw bi nga xam ne lam doon sax gàncax gu ñëpp bëggoon la léegi nag loolu lay alquran di wax si nii ca mbooloom sabayima moo tax mu ne laqad kaana wallahi nekk na li saba in ñeel mbooloo saba ima fii masaakinihim seen dëkkuwaay ya ayatun mandarga ayatun kaawteef buy tegtale kartanal yàlla ga kartaan nga nag mu badal ca ne jannataani ñaari boromi tool lañ xoon mbooloo mu amoon ñaari tool benn tool ba an yaminin mi ngi nekk ci ndeyjooru xuur wi beneen ba wa shimaalin mi ngi nekk ci càmmooyu xuur wi tool ya naat mbooloo mat naat dëkk ya naat yàlla di leen ñaax nag nekkuloo lekk leen min risqi min risqi rabbikum ci wërsëgu seen borom lekk leen ci wërsëgu rëy wi yàlla defal leen washkuroo ngeen sant lahoo ñeel yàlla ci xéewal gu rëy gi moom da ngeen xam ne baldatun dëkk la tayibatun bu teey seen dëkk bi neex na climat bi neex na ba weñ amu fi yoo amu fi gunóor amu fi jaan amu fi jiit amu fi même sax maanaam teeñ amu fi su ko defee kon nag wa am ngeen borom boo xam ne tamit rabbun borom la xafoorun ba jéggalaa koon seen borom bi leen defal lii muy dëkk bu teey bii moom tamit borom la boo xam ne bu mën a jéggale la kon nag ñëw leen ngeen sant seen borom lii la leen alquran wax lii la leen seen yonent ya yàlla yónni woon ci ñoom wax déglul lañ tontu seen gaaya yàlla ne fa arado dëddu nañ wan gannaawu yonantu ya leen den xoo di fukki yonantoog ñett ñu ne leen soxlawuñ seen i kàddu liñ nekk mënuñu cee bàyyi yàlla nag nee na fa arsal naa yebal naa alayhim ci ñoom saylal arimi yolal njukkal géej ga géej gi commencé di yol ndoxu taw ba yol dugg ci seen néeg ya ñi mujj maanaam am problème yàlla ne wa badal naahum wattee naa leen bi jannatayhim seen ñaari tool ya watee naa ko jannatay ni yeneen ñaari tool maanaam mafoolam ñaareel la ñaari tool yooyu mooy lan mu ne zawaatay ukkulin yay boromi ñaari caf nga xamtin yoo xamee dafa wex xatt wa aslin ak nguy si garab wa shay'in ak lëf min sidrin qalilin ci déem bukki seen tool ya mu jëna lii rek a fa am yàlla na ñu yàlla fayal maam alaa jëb laay ñes baat yi gënoon a naqaree firi ci alquran min sidrin xalil ca la bokk boo ko boo ko boo ko teqalee rek doo ko mën a firi ndax doo wax dém gu ndaw waaye dafa daan boole ñaari baat ne min sidrin xalilin déem bukki bokk na ci baat yi gënoon naqar naqaree firi ka annahu ruusu shayatin ñenn ngi di ko firee boppi boppi boppi saytaane mu ne déedéet boppi ñàngoor la ci yàlla nangu kon baat yooyu bokk na ci eh, li nga xam ne dafa naqare woon a firi maam alaaji firi ko daan ko jam ca téeréem ba mu daan firee boo ko gisee rek yéemu su ko defee nag kon seen ñaari tool yu naatoon yooya mujj na yàlla remplacer leen ko mu yàqu di mujj di sax gàncax gu ngeen soxlawut démb bukki xam nga ne kenn soxlawu ko ndax kenn du ko lekk mooy si démb bu mag boobu nga xam ne day rëy waaye boo ko lekkee day wex li ñuy tuddee tamit aslu muy nguuy si garab ñenn ngi daan ko firee nguy jéeri garab la goo xam ne amut njariñ kenn bëggu kenn bëggut ko xam naa nag euh, nguy si garab ak euh, démb bukki ku mel ni Assane Diouf du ko mën a dégg Euh, su bëggee mu yomb ci moom bañ koo jafe foog mu ànd ak Saalum ba dem Saalum ci kër Abdou Jafe su demee foofu dana ko xamal baat yooyu muy nguy si garab ak maanaam nguy euh, maanaam dem dem bukki waaye Assane moom baat yooyu du ko mën a dégg. moo tax yàlla ne fa arado dëddu nañ fa arsal naa yebal nañ alayhim ci ñoom say saylal arimi yolal maanaam njukkal géej ga wa badal naahum wattee nañ leen bi jënnatayhim seen ñaari tool ya jënnatay ni ñaari tool ñaari tool yoo xam ne zawaatoy ukkulin ñaari boromi caf nga lañ xamtin yu weex xat wa aslin ak nguy si garab wa shay'in ak lëf min sidirin qalilin ci dem bukki seen tool yi mujj na yàqu lii rek moo fa mujj am yàlla nag ne ku def lu bon lu bon mooy sa fay ku def lu baax ma fayeele lu baax dañoo bewoon commencé tiitaru ngir naataange xéewal gu nekk ci ñoom ma fayee leen toroxtaane ndax nit fekkee alal moo la tax a bew ak naataange bu fa naataange ja bàyyeekoo ak alal ja nga delluwaat fa nga nekkoon fu mel ni nag ñàkk nañ seen kër yu rafet ya ñàkk nañu seen tool yu naat ya ñàkk nañu seen koom-koomu alal ja dañ doon mujj daan fan fat gan ñi waaye fu ma nii mujj nañu dem toxalu dem ci réewi jàmbur yi dem di liggéeyi bëgg ku leen fat kon maanaam maanaam beew baaxut ku bew yàlla toroxal la wërsëg wala yàlla mën a jox wala ba tànk nga koy njukkalee yàlla bew ak tooñ ci torox rek ngay mujj bala ngaa dee ñëpp yërëm la moo tax yàlla ne daalika loolu ma tudd jazaynaahu moom lañ leen faye bi maa kafaru ci sababu seen ak weddi yàlla di laaj laaju istifhaamu inkaar ne waxal yu jaasa ndax def na fayee fay gu bon gii mu xasaf ko illal kafooru ndere weddi ha kon képp kuy weddi xéewal ak yàlla wala ngay weddi yàlla mii borom xéewal gi fay gu bon gii rek mooy nekk sa fay dagale alal ba muy ba mu dajaal ba mu dagale yàlla yàq ko nga yaakaar dara yàlla tas ko nga liggéey alal ba yaakaar ca doo ko muurloo bàyyi ko fi loo yaakaar mu tas lu nekk sa loxo tamit nga ne man de mën naa am alal mais mënumaa def dara fekk la nga doon def ci lu bon moo mujj dagee ci sa kaw nga mujj torox léegi nag euh, seen dëkk ya jege yam jege woon ak barke gi mu barke woon nga xam ne kuy tukki jarul yóbbu yóbbal yoon yi am na sécurité fu la neex tey nga fanaan fu la neex nga yendu amul dara lu lay agressé ñi beew ne dañoo bëgg suñu dëkk yi soree voyage yu jege yi daal sàppi nañu dañoo bëgg dëkk yu sore nga dox lu ma juróomi téeméeri kilomètre doo jot dëkk loolu lañ bëgg ndax booy dem mën a yóbbu wàlla yóbbal ak yooyu xam nga ñi dañoo bew waaye xoolal fi yàlla di mu ak ñoom moom lay wax si nii moo tax mu ne wa jaal naa def nañ baynahum seen diggante dëkk ya fa ñu dëkk sanaawu man ñetti farsax la woon wa baynal qura ak diggante dëkk ya alati dëkk ya nga xam ne baarak naa barkeel nañ fiyaa ca moom muy saam def nañ quran ay dëkk zahiratan yu jokkaloo wa qadar naa nettale nañ fii haa ca dëkk ya sayra dox ba bu la neexee fanaan fii yendu fale ñu ne siiroo dox leen fii haa ca dëkk ya layaali ya guddi ya wa man ak bëccëg yi na mbir mu ngeen i way xoolu kenn du leen agressé fa qaaloo ñu ne rabbanaa yow suñ borom baa'id yàlla nga soril bay bayna asfeeri naa diggante suñ tukki yi na dëkk yu soree dëkk yu jege yi ànd ak sécurité gi sàppi nañu yàlla ne waxala moo tooñ nañ anfusahum seen bopp fa ja'alnaahum mu jël nañ leen ahadisa ñi ay xibaar ñi ay waxtaanee ni nga di leen waxtaanee ca grand place ya ba tey ñun ñi leen waxtaanee tey fii ci wal fajri wa masax naahu mu ngete nañ leen kulla mu masaxin bépp ak mu ngete inna fi daalika nag nekk na ca loola la ayatin ay kawteef yu tegtale karte nag yàlla gu taleehu dara ki koy jariñoo nag li kulli sabaarin ñeel na képp kuy muñaakoon ba bayi mooy yàlla shakoorin kay santaakoon ba topp yàlla ca lam ko digal ñu mujj beew ne dëkk yu naat yi sàppi nañu naataange ji ñu dund sàppi nañu yàlla ne mujj naa toroxal leen nit ña di leen ataaya di leen waxtaane jigéen ña di leen demee marché jigéen ña di leen demee ci robinet ya ba tey tamit ñun ñu ngi leen di waxtaanee tey fii ci wal fajri te xoola loolu bi mu xewee léegi ñeenti téeméeri at ñu mujj tasaaroo fu nañu dem torox ci àdduna bi dem di été ji dem ci yeneen réew ya di fa uti seen i liggéey waaye fekk na lépp loolu lañ ko daan uti ci ñoom kon réew lu mu naat naat réew lu mu lu mu développé bu ñu bewee nekk ci mooy yàlla rek la ñu am maanaam la ñu am moomaguñ ko maanaam faw dañ ko ñàkk yàlla dina leen toroxal soo nekkee jëmmu yàlla naatal la defal la xéewal nga bew yàlla dina la toroxal su la yàlla tamit eh, ubbee ci wërsëg wala sa liggéey wala nga yore entreprise ngay tooñ nit ñi dundee seen i àq yàlla dina la toroxal ba nga mujj li nga amoon lépp nga ñàkk ko kon képp koo xam ne di la yàlla jox da nga bëgg mu yokk day ci dimbale nit ña te yàlla tax day ci génnee asaka day ci dimbale ñi nga xam ne ne tene nga leen tabul tiitaru ci seen kaw lii boo ko defee rek li nga am yàlla day gën di yokku ndax yàlla am na ñaari malaaka benn bi dara du liggéeyam lu dul la muy wax lépp mooy ne yow yàlla ki yor te lim am dana ko joxe yàlla bu mu ñàkk lu muy joxe kenn kenn yow yàlla koo xam ne lu xas dugg ci poosam kenn du ca jotati lu mu am yàlla nga ko yàq ñaari malaaka yi bët bu seet buñ xëyee la ñuy ñëw ñaan allahuma amsik mumsikan talafan kii ne allahuma allahuma anfiq mumsikan maanaam munfiqan maanaam xalafan kene mun fi xan xalafan kene mun si kan talafan su ko defee kon ñaar ñi duñ ñàkk seexal al Islam Haaj Ibrahima dafa daan wax ne nit ki su fekkee lu mu am di ko joxe alalam day xëlëf xëlëfi rek di gën di yokk rek lu dem rek leneen ñëwaat lu dem rek la neen ñëwaat ndax lu tax allahuma anfiq munfiqan xalafan xalaf xalaf jooju mu ne lay alal jëy mujj def rek lu dem rek leneen ñëwaat su fekkee ne ku joxe dootoo ñàkkati ku watu dootoo saxaat kawar su fekkee ne ku dox ku joxe dootoo ñàkkati soo daggee say we dootul saxati waaye lii lépp loo ko def maanaam safaan ba yàlla wan la ko te loo joxe tamit lu gën rek ngay gën di ñëw dañuy wax ne wërsëg maanaam ñett la maanaam fii ci sa loxo bi 5000 francs moo ci ne cooncu bi 25000 fii nii 50000 soo joxee maanaam 5000 bi 25000 yi wàcc 50000 bi wàcc ñëw rempli fii waaye nag feeg yaa ngi téye 5000 bi du dem tamit dara du ñëwaat moo tax loo joxe rek maanaam lu ko gën ngay ñàkk ngay amaat. waaye nag wóolu yàlla moo moo moo jafe ah man 5000 bi ma amee du ma ko fi joxe di perte temps taxawal ma def nangam ak nangam léegi-léeg sax nga bëgg a joxe mais da ngay mujj joxe loo xam ne du am solo léegi-léeg nit dem ci sëriñ bëgg ko jox addiya wala mu gis yalwaankat wala ku néew doole daal di laaj gëdd poos bi ba mu njëkkee nuyu poos bi rek 5000 nuyu ko mu ne bii baaxut dugalaat c'est maanaam 10 000 nuyu mu ne baaxut 2000 nuyu mu ne baaxut dana wane gannaaw nag mu ne ba mujj fa muy mujj mooy 500 francs lay mujj génne wala 100 su ko defee kon li wàcc li muy joxe du am solo moo tax la muy amaat du du am solo kon fokk ngeen joxe li ngeen gën a bëgg yàlla jox leen ci li ngeen gën a bëgg lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun su ngeen joxe li ngeen gën a bëgg rek yàlla jox leen li ngeen gën a bëgg su fekkee alal nga gën a bëgg dee ko joxe rek alal ku koy toroxal di ko joxe doo ko ñàkk foo jëm yàlla dimbali la waaye boo koy jël di ko teral di ko di di maanaam foo tol di ko korkor doo am dara da ngay rek dara nga dul am su ko defee kon nag euh, yàlla mi ngi ñuy yee ci loolu joxe am na solo trop ñii lañ am bañ ko nekkee bañ caa de yàlla toroxal na leen léegi nag yàlla di wax ne ñii de iblis yey na leen xam nga am na jaami yàlla yoo xam ne iblis pare na ci ñoom la bëggoon ci ñoom am na ko dafa bëggoon ñi bon bon nañ kon ma ngay tëdd nelaw bëggoon nañ maanaam ñi sànku sànku nañ moom lay wax si ni ne wala qad sadaqa wallaay sa dëgg dëgg dëggal na alayhim ci ñoom iblisu iblis rannahu njortoom ba la iblis njortoon ki ñoom am na ko amatul ci ñoom soxla fattabaxuhu topp nañ iblis illa fariqan daneb kuréel bu tuuti minal mu'minin ci way gëm ñi de illaa ibadaka minhumul muxlasina rek ñoo ca mujj yàlla nañ ci yàlla boole waaye nga ca des ñëpp la uxwiyannahum ajma'iin ja iblis waxoon maanaam maanaam bëgg na ko moo tax gaa yi ne léeg léeg iblis am na foo xam ne bu fa jaaree du ralentir sax bu ñëw fekk gaa yi ca baal ba ñe nekk ca bëre ba ñee ngay fecci da leen yëkkati loxo ne waaw góor li ma bëggoon yéen yéen a ngi ci awma ci yéen soxla waaye iblis kay ñamay wax ak mooy nga ca jàkka yaak di def lu baax ak ñooña moom foog mu xaw a ralentir fexe nu mu leen yàqale waaye ña nga xam ne moom iblis la mu bëggoon lépp ña nga ca moom moom da leen di saluer rek ne waaw leen góor nii laa ko bëggee woon nag yàlla ne wamaa kaana nekkut lahoo ñeel ko moom iblis alayhim ci ñoom min sultaanin ci noteel li tax iblis not leen dara waralu ko illa li na'lama lu dul ñu feeñal suñu xam man yuminu koo xam ne dana dëggal bil axira ci àllaaxira mi man ci nga xam ne huwa moom min ha ci àllaaxira fii shakk aji nekk la sikk wa rabbuka borom sa moom de xafiisun aji wattu la xafiisun aji fuglu la alaa kulli seen ci lépp lëf ñii nag boo gisee iblis colonisé leen bala mu bëggoon ci ñoom ñi am ko kuréel bu tuuti iblis mënu leen a colonisé du dara man yàlla maa bëgga a feeñal sama xam man xam naa ñay dem safara xam naa ngi dem aljana waaye damay koo bëgg a feeñal ci yéen ba ngeen xam ne ñii baax nañ ak ngeen ma feeñal ko ci yéen ba ngeen xam ne ñii baaxuñu su ma ko defutoon du ngeen mën a xam ñu baax ña ñu bon ñi kon nag loolu maa ko doxalee ngir bëgg yéen ngeen xàmmee leen aayaat yi tegu ci yàllaa ngi wax ak waa màkka yi yonantu bi bi mu wanee mandarga yu rëy yéeg ak fi yàlla jaar yëpp ñoom ñi yeneen yàlla di leen jaamu yàlla di leen ñaawal ne waaw yéen man de ñi ma def ne maay seen yàlla li ma leen defal rëy na maa leen bindal asamaan mu tiim leen bindal leen suuf di leen wërsëgal may leen jàmm jox leen climat bu baax comme ni buñ bàyyeekoo léegi waaw yéen yàlla yi ngeen di lu ñu leen defal lu ñuy wax tus mënuñoo defal dara yàlla joo xam ne bu ko weñ taqee sax mënu koo dàqal boppam yow guddeeg sa nga sëkk ci kawam di ko jaamu kenn gënu laa doxadi daxufa taalibu wal matlub kii sàkku moo doxadi kañu sàkku moo di ndax ñoom ñaar ñëpp kenn du ci jëriñ sa morom moo tax yàlla ne qul waxal ne udduxu na ngeen xoo ladina ña nga xam ne sa amtum wax ngeen ne ay yàlla lañ min doon laay te yàlla su ngeen leen wooyee mënuñ leen a jariñ dara ndax mënuñoo jariñu bay jariñe ñoo xam ne laa yem likoon a moom tiñ mitqaala zaratin kem peppab sànqalañ fi samawaat ci juróom-ñaari asamaan wala fil arjaken juróom-ñaari suuf li fi nekk lépp amuñ ci lu toll ni peppab sànqalañ ci asamaan ci suuf li fi ne lépp moomeel ak yàlla la mindeefam lañ ay jaamam lañ wa wama lahum dédd ñeexal leen fii fiihimaa ci asamaan ak suuf ñoom xërëm yooyu min shirkin ci mbokkaale amuñ ca dara yàlla min zahirin ci kenn ku koy sotle minhum ca yàlla yooya lu mu bëgg def moom kenn koy def kenn du ko dimbale kon nag bàyyi leen fi ñi mënut bàyyi leen fi ñi xamut bàyyi leen fi ñi amut dem topp yàlla mi xam boole koog am boole koog maanaam kartan su ngeen ko defee lu ngeen bëgg mu defal leen ko loolu rek mooy xulaasatu aaya bi waaye bu ngeen fi bàyyee koo xam ne nii mooy ki man lépp dem di topp ko mënut dara da ngeen di mujj perte te nag ñii ngeen topp mënuñ dara mënuñ ko fii ci àdduna bu yowmal xiyaamee duñ leen mënal dara mooy duñ leen ramm su ngeen nekkee ci ay giraawaali coono tamit kenn du leen mën ramm foofa safara ngeen di dem moom lay wax si nii ci àllaaxira ja moo tax mu ne wala tanfaxu du jariñ ashafaatu ramm gi indahu fa moom yàlla illa liman asnalu koo xam ne digal na la woo ñeel ko àllaaxira ku fay ramm rek mooy ku yàlla jox ndigalal ramm te foofa nag bala ñuy joxe ndigal xata ida fusiha maanaam foo xame ba tax nga xam ne jàqeef na maanaam fusihu maanaam jàqeef nañ fa mel ni waaw nga ci dolli mën koo firi an qulubihim ci seen xole ñëpp jàq tàqalikoo seen sagoya ndax ñun danañ mucc bay keneen di mën a muccee ci ñoom foofa la yàlla joor a doxee ndigal ña muy jox ndigal ñi ràmm su ko defee ña jàq naan xaaloo ñu ne maada xaala lan la wax rabbukum borom seen xaaloo gaa yi ne leen malaaka yi ne leen yàlla de wax na waaye lam wax alxaq mooy waxi dëgg waxu moom yàlla alali yu mooy aji not ci nguuram alkabiru mooy aji màgg ja de maanaam bu ñu xeggee yowmal qiyaam kenn du fa ramme lu dul ci ndigalal yàlla wala yashfauna illa liman irtada fële ca baqara mu ne man zal lati yashfau indahu illa bi idnihi alaxira ku fay ramm ndigalal yàlla dong ngay rammee te ka ñuy ramm tamit ku yàlla gërëm lay doon mu doon tudd baatu seede bi di julli am lu mu manquile yàlla terelee ko nit ku baax mu ramm ko waaye koo xam ne sax baax le woo dara duy julli du hoor du joxe asaka du tudd baatu seede bi kooka moom kenn du la mën a ramm ci dara ndax dara ramm ku ñu booy ñaanal nit ki intervention day fekk mu am dara waaye waajoo xam ne dafay jaay dorog wala mu rey nit wala mu lu mel noona nga ñëw booy ñaan intervention looy wax looy wax mënoo koo xam mais su fekkee tey waa am na dara ci dëgg am lu mu manqué man nga koo ñaanal intervention ne comme nag lii damaa bëgg ngeen dëgg ci jéggal ko lii waaye koo xam ne léppam giraawaale la kenn mënu ko ñaanal intervention kon boo tuddul baatu seede bi julliwuloo defoo lu baax bu yowmal qiyaamee kenn du la ram bu ko defee kon nag ramu ku nekk ci xat-xat lañ koy def te ña nekk ci xat-xat sax bay rammee bala ñoo ramm ñoom fekk ne jàq nañ malaaka yi bala ñoo ramm ña ngay jàq ndax ñun dañ mucc yonumtu yaa ngay jàq ne ndax ñun dañ mucc awliyaaw yaa ngay jàq ne ndax ñun danañ mucc su ko defee tamit ñu baax ña borom xam-xam yaa ngay jàq ne ndax danañ mucc foofa nag ñu jàqee ne danañ mucc yàlla musal leen ba pare tere leen leen ne leen kaay leen danaa leen may kotaawu nangam ngeen ramm ko ñii mu may leen kotaawu juróom-ñaar fukki junney nit ñii million ñii mu may leen milliard ñii mu may leen junne ñii téeméer ñii fukki nit ñii kenn nit ñii ñaari nit ku mel ni Ousmane kotaam génn na dana ramm lu toll ni ba nii ba nii mu dar kooku yonentu bee ko wax weeru koor kotaam génn na yonentu nee na weeru koor dana rammu képp ku koy taxawee daan woor ba tey tamit eh, alquran kotaam génn na nee na dana ramm képp ku ko daan jàng bu yowmal qiyaamee mu sol rabu awaka taxaw ci kanam yàlla ne ko damaa bëgg nga ràmmloo ma kii dafa ma doon jàng guddeeg bëccëg yàlla ne ko may naa la ko mu ràmm la kon nag am na ci ñoo xam ne seen seen tur génn na ba pare su ko defee nag am na ki ñoo xam ne nag seen tur génn gut li ci des nag mooy rafet njort rek maanaam ke seen wàllu wa waaye toog rek nag ba nga def dara jël sa lépp bëgg ko sukkandiku ki ne da daf may ràmm ci ci erreur nga nekk ràmm ki ñu koy def mooy ku nekk ci dara te maanaam kuy ràmm ku ñuy ràmm ku nekk ci xat-xat la ñàkk a nekk ci ka a wóor waa joo xam ne tey yóbbu ko police tëj ko fa gaayam bokk ak néeg wala kër ñetti fan gisuñu ko ñu naan jàllale nañ ko jàllalewuñ ko gars yi door dem door dem ñu jàllale ko ñu nañ ñaan intervention ci siis bi nañ jaar fii nangam ak nangam ñàkkoon a dem foofu moo ko gën a wóor te loolu nag boo ci bëggee sëriñ bi nga gëm di ko topp la muy digle nañ koy def la muy tere nga bàyyi ko boo liggéey fu mu gis boppam gis la fa waaye toog nag li sëriñ bi digle defoo bu teree bàyyi woo nga bëgg la sëriñ ba am nga am ko bëgg jël sa mbir wéer ko fa dafay yomb ba ëpp nag loolu benn sëriñ diglewul ko ayaat yi tegu ci mi ngiy wax wërsëg xam naa sax mooy bopp xisib bi qul man yarsuqukum lay wax si nii wane ne na seen xel yi dal ci wërsëg kii wërsëgale kenn rekk la mooy yàlla yàlla bu la joxee wërsëg bu ñëpp kompoo woon mànkoo ne tamit du sotti tamit dara lañ ci mënut waaye bu la yàlla xeñee bu la ñëpp yéenee tamit du sotti te mu ne tamit rafal rafet leen seen xel ci wërsëg wërsëg moo ëpp doole fan wërsëg ak fan bu ñu doon xeex yonentu bi nee na wërsëg daane fan looloo waral nit ki nga dem ba ne fanam jeex na mënta defati dara ñu ngi yëkkatee ka tëral mënta lekkati sax bañ koy mujj di xool wala ñu koy sampal ay prévision fekk wërsëgam a jeexagut fokk mu lekk loola wala ñu sampal ko ko mujj am jeexital ci yaram yi door a dee moo tax yonent bi daan wax ne rafetal leen wutin yi kenn ci yéen bala fee bàyyeekoo wërsëgam dafa jeex fekk sa wërsëg jeexut doo dee waaye bu sa wërsëg jeexee rek nag nga dee su ko defee kon nag ñaawal taxut a am loo war ta am rafetal terewut a am li nga war a am su boobaa kon nag wërsëg dafa yàgg nit ki ba mu juddoo bañ ko ba mu amee téeméeri fan ak ñaar fukk yàlla wal rooxu ci biiru yaayam te mala malaaka mi def ko yaay ya yëgul ko foofa lañ enregistré enregistré wala wërsëg wa ñu enregistré fan nga enregistré rafetaay ba ak ñaawaay ba guddaay ba ak gàttaay ba texe ga ak ñàkk texe ga wërsëg wa day xatam day yaatu foofa lañ ko enregistré ba pare nag bàyyi ko moo tax kon soo yeboo rek nga rafetal ko gis nga yàlla kenn du moom moo tax ba nga ñëwee la nga war sa góo rek taxaw na di la xaar ba nga ñëwee li li nga war a njëkk a war sa góo ci kaw suuf mooy sa weenu yaay yaa ngi fi woon sa yaay nekk fi ci ëmb bi yow waaye soow mënul génn waaye keroog ba nga juddoo rek meew génn noonu tamit ñam wi nga war a lekk biberon bi yëpp ñu defar ko lépp nga commencé di ko jariñoo fi nga war a tëdd li nga war a li nga war a lekk ak sa loosement lépp loola fekk na mu pare moo tax tamit nit ki bu ñëwee rek jooy maanaam ku judd ci àdduna jooy àdduna dafa naqari ku la fi indi indi na la coono àdduna dëkkër gu métti la moo tax ku ñëw jooy ku juddu jooy liir bu ñëwee la muy njëkk a def rek mooy jooy bàyyi yaag tànta yaag bàjjen ya commencé di sawar am nañ doom am nañ sët moom muy jooy rek ñu ne ko looy jooy mu ne damaa bàyyee ko ci place boo xam ne lépp ma wër te dara warut ma ngeen andi ma ci place boo xam ne lépp ma wër lépp war ma fu ma jëm foog ma jooy états yi fu ma jëm ak ñoom oto yi fu ma ci jëm ak ñoom ñeenti es yi saako ceeb beeg facture SONES beeg Senelec ak sonaateel bi fan laa jëm ak moom te fee ma nekkoon 9 mois sama logement kenn laajul ma benn caution indi luñ ma facture courant du ndox du dara te sama dara manqué wul moo tax liir bu ñëwee rek jooy shaa'ir ba ne doo doom aadama da juddu nit ñii ree yow ngay jooy soo dee nit ñi di jooy waaye fexeel ba bu nit ñiy jooy yow fekk yaa ngi ree ci sa biir bàmmeel yàlla nañu ko yàlla defal loolu tamit fii lañ koy nag moo tax yàlla ne qul waxal yow yonantu bi ne man yarsuqukum ana kan moo leen di wërsëgal mina samaawaati tukkee ko ci juróom-ñaari asamaan yi wal ardi ak juróom-ñaari suuf yi buñ la tontuwut qul wax leen ne allahu yàlla moo leen di wërsëgal wërsëg yàlla rek moo koy joxe wërsëg nag ñaar la xisiya ak maanawiya maanaam wërsëgu xisiya mooy lu ñuy lekk wala ñu sol ko wala ñu dëkkee ko wërsëgu maanawiya mooy luy dundal rooxu di dundal xol di dundal xel ñaari wërsëg yëpp yàllaa koy joxe yàlla nag def ne yàlla nag di laaj ne kon yàllaa koy joxe wa innaa naka ñun ci rafet ak maanaam woote rek xoola yàlla waxinam num rafetee ne wa innaa naka ñun jullit ñi aw iyaakum wala yéen xéeféer yi la dan hudan aji nekk lañ ci njub aw fii dalaalin wala ci sànkote mu binin ngay aji biir soo dégge soo jàngee aaya ji fiiri ko te jàngoo balaaxa dangay ngay foog na dafa bëgg a wax ne ñun ak yéen daal am na am na ki ñu nekk ci njub am ci ñu nekk ci réer noonu nga koy déggee fekk bëggut a wax loola dafa bëgg a wax ne ñun jullit ñi ñoo nekk ci njub yéen dul jullit yéen nekk ci caaxaan lafun wa nasrun murattabun la maanaam wa inna la la ala hudan wa in wa iyaakum aw loolu la bëgg a wax ñun ñii ñoo nekk ci njub yéen ngeen nekk ci réer moo tax kon aaya ji pour nga dégg ko foog nga jàng balaaxa waaye bëggut a wax ne rek ñun ak yéen kenn nekk na ci njub kenn ki nekk ci réer déedéet dafa bëgg wax ne ñun jullit ñi ñoo nekk ci njub yéen ngeen nekk ci réer moo tax mu ne wa innaa naka ñun jullit ñi la ala hudan aji nekk lañ ci njub wa aw iyaakum wala yéen xéeféer yi nga xam ne defu leen jullit fii dalaalin yéen a ngi nekk ci sànkute mu bi nin ngay aji biir loolu la bëgg a wax xul wax leen ne laa tus aluna deefut laaj leen amma ajiram naa waris li nga xam ne fàgg nañ ko ci bàkkaar wala nus alu deefut laajeef ñu amma tamal li nga xam ne tamit yéen a koy jëf lu ngeen def ci lu bon yéen yenn responsabilité suñu yoon nekku ci ñun tamit ñu def ci lu baax ñoo yenn responsabilité bi seen yoon nekku ci benn bàkkaar du tegu ci ñaari loos nga def bàkkaar yàlla na bëgg la ko mbugal mbugal kale déedéet di kenn ku ne sa bàkkaaru bokk wala taziru waziratun wisra oxra ci aay ji ngay déggee sax nañ li ñuy wax naan doom gi judduwul ci yoon al safara la jëm ak nangam doom gi judduwul ci yoon bu jaamoo yàlla baax di def lu baax ku ko njëkk a xal jànn nga koo njëkk moom kay deful dara kay def dara kay ñu war koo mbugal mooy bàyyam ma ko jur ci lu dul yoon waaye moom deful dara waaye yaaram yi dañuy tuddee waladu sinaa koo xam ne waladu sinaa dañ koy tuddee waalidu sinaa ki nga xam ne tey dañ dafa juddu mel ni dañ koo jur ngir njaaloo rek fu mu toll mi ngi mooy rek ak jigéen ñi kooka ka annama maa li sinaa loolu tax ñu tuddee ko waladu sinaa fekk waalidu sinaa lañ ca namu waaye namuñ ci waladu sinaa ba waladu sinaa ba deful dara moo tax hadis yi naan waladu sinaa du dem jana kam jural du jana ba muy juróom-ñaari yoon boo demee ci kifaayatu raaxibin bu maam alaaji Malick dafay wax ne même hadis bu bu wéroon dañ koo war a taawil waldu zina bi deful dara boo koy taawil ngay wax ne waldu zina waaye waldu zina bi defu dara kon nag moo tax imaamu Malick ne waldu zina bu jàngee am xam-xam jub mat na ilimaan liñ sib rek mooy mu nekk imaamu ratib waaye mu nekk deuxième imaam ak troisième dara nekku ci Cheikh na Tijaani ne bu sellee jël tariqa bi ku ko njëkk a xal nga ko njëkk a kon maanaam deful dara kañ ko ka ko def dara rek moom la koo kookaa def yow waaye mooy mënul amul amul benn problème moo tax mu ne qul waxal ne laa tus aluna defut laaj leen amma ajram naa walis loo xam ne fàggu nañ ko ci bàkkaar wala nus alu defut laajeef ñu amma taamaroon walis loo xam yéen a ngi koy def yim ci bakkaar de qul wax leen ne yajmau dana dagale bay na naa suñ diggante rabbu naa suñ borom moo ñu dagale su ma yaftahu topp mu xattee bay na naa suñ diggante bil xaq ci xatteeb dëgg huwa moom yàlla alfataahu mooy xattekat bi alalimu kay aji xam la muy xatte mbir mu ne ka maanaam la ca la ca place la koy teg du jël dëgg di ko jox ko ko moomut du jël timit ki amul dëgg di ko xeñ dëgg moo tax mu ne qul wax leen ne aroonii xamal leen ma lazina ñi nga xam ne alxaqtum ak ngeen bihi ca moom suraka seen bokkaale yi seen way bokkaale yi ngeen jël di leen bokkaale wan leen ma leen anañu kàllaa dëgg bal li fi nekk yàlla xamul bokkaale huwa moom huwa moom yàlla huwa moom dong allahu mooy yàlla alasiku ko ak not alxakimu ko aji xereña de kon nag wan wan leen ma ana seen yi ngeen doon bokkaale am nekkatuñ fi kon nag dëgg-dëgg bu caaxaan jeexee daal yàlla waruñ ko bokkaale kenn bokkul ñoo kenn ci bind ci ray ci war wërsëgal ci dee kon nag su boobaa maanaam waruñ ko bokkaale kenn ci dara aaya ji bokk na ci aayaat yi tekki ne sayyiduna muhammad a gën ci mbindeef fi ndax ba ko yàlla ne dama laa yónni nga matale ci mboolee mbindeef yi comme yaa yónantu mboolee mbindeef yi kon day tekki ne yaa gën ci mboolee mbindeef yi rek ndax yeneen yonentu la jiitu woon kenn ku dama ko yónni ci ñettam ña yonentu yàlla noox wa laqad arsalna nooxan ila qawmihi wa ila aadin axaahum huud wa ila samuuda axaahum saalix wa luutan id li qawmihi waaye yonentu bi nag wa maa arsalnaaka illa kaafatan linnaasi loolu moom kenn dong moo ko am moo tax mu ne ko wa maa arsalnaaka yónni wuñu la illa kaafatan lu dul ngay mbir mu ngay aji matale linnaasi ñeel nit ñëpp ci lañ la yónni ci ba ci yonantu yéen yónni woon sax yaay seen yonantu bashiran mbir mu ngay aji bégle képp ku la gëm ci aljana wa nasiran ngay aji xuppe képp ku la weddi ci safara walaakina akasara naasi li gën a bëri ci nit ñi nag loolu de laa na ñoom xamuñu ko moo tax ñu ngi ci sànku te gu leen yóbbu safara su ko defee nag wa yaquluuna ña ngay wax naan mata haadal waxdu kañ la bisa kañ la kañ la bisa bi la dëhal kañ la bi la dëhal te mooy bis bi ñu yàllay tëkku ci mbugal kañ lay ñëw in kuntum nem nekk nga saadiqiin di way dëggu kañ la yàlla ne leen xul wax leen yow yonantu bi ne leen làkkum aji nekk la ñeexal leen miiaadu yawmin rendi wo bis bis ba dana ñëw de bu buñ ci heggee laa na du yéexaleef an walis bis ba saatan lu tool ni saaxa wala na du jiital leen du ngeen avance ba tey an walis bis ba saatan lu tool ni saaxa moom daal du ngeen avance du ngeen retard rendi wo bi leen yàlla soxla rek ngeen ñëw net amul avance amul retard midi laa leen soxla midi pile ngeen yegsi rendez-vous yëpp mën nañ koo faussé ba mooy rendez-vous àllaaxira bu la neexee waa gi jox la rendez mi di nga toog ba def ko rendez-vous Sénégal yi wax nga toog ba une heure wala deux heures nga door a dem waaye rendez-vous yàlla moom kenn du tardé kenn du absent ñëpp ay teew bu walee bufta bi ñëpp dekk ci seen bàmmeel yi te seen téere jëm ca péncam yàlla ma te pourtant mala Israfil mi war a wal bufta bi moom si boppam sexaale na ko ba pare di xaar yàlla ne ko walal rek day xaar rek yàlla jox ko ndigal rek mu wal xaw ma nag dafa teel a sex wala dafa dafa dafa jege rek nag waaye bu ko walee ñëpp tabaarakallaahu dekki jël seen téere ya jëm ci péncam yàlla ma mu bu ko defee nag ñi dekki ñi teg ñeen fukki fan bu bu bu bu ñëpp dee bu ko walee ñeen fukki fan ñeen fukki at ñëpp dee mu waraat ko ñeen fukki at mooy nekk diir bi ñëpp dekki jëm ca péncam yàlla ma nag kenn du tardé ñu njëkk ñaag ñu mujj ña yàlla ne foofaa mat gàcca gàcce gu la mën a dal ci àdduna matul gàcce kenn wàll gàcce la lu tax am na ñu dee ñu ko yëgul am na ñooy dund ñu la xamul am na ñoo xam ne xamuñ sax yaa ngi dund bay am gàcca àllaaxira nag foofa kenn du tardé ñu njëkk ñaak ñu mujj ña moom la alquran ne yawma tubla sarairu fama lahu min quwatin wala nasir kon foofa moo am gàcce wa wax na lazina ña xam ne kafaroo ñu ne lan na ñun de dëggaluñ bi haada alquran ci alquran ji yàlla wàkke ci yonantu bi gëmuñu ko wala bi lazi du caakeen ci la nga xam ne bay na yadayhi jiitu woon na ko ciy téere tawreet ak linjiil ak zabuur ma ko jiitu woon gëmuñu ko yàlla ne walaw tara doonte gisoon nga yow yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam idi zalimuna boo xamee ne tooñkat yi mawquufuuna ñuñ taxawal lañ indi rabbihim fa seen borom di régler seen mbir foofa de boo ko gisoon da nga gis lu ñàng gis lu rëy rëy mu xasaf ko buñ fa heggee foofa yar joxo dana dellu ba'duhum lenn ki ñoom ilaa ba'din jëm ci lenn ñiy xuloo lu ñuy wax dañu delloo lenn ki ñoom dañu dellantu alqawla wax ja yaqulu dana wax la si na ñi nga xam ne maanaam istud'ifoo lompoleef na lañ bañ doon toppee li la si na ñeel ñi nga xam ne istakbaru dañu rëy lu woon bañ topp leen ñañ doon toppee mooy sëriñ yañ toppoon taalibe ya leen toppoon joxar bi leen lu ñu leen di wax ñu leen law laa antum su taxutoon nag yéen sëriñ yi dooñ mu dëdd loo lëkku naa ngi nekk moom di way gëm de su ñàkk gëm gi yépp yéen ñu gàllankoor jëmee ngi seen bopp waaye su ngeen ñu joxañoon joxañoon yàlla rek ñi dem ca du ñu xam benn problème moo tax bu yow yowmal xiyaamee kenn ku nekka nga toppoon ak kala toppoon dangeen ngeen seen mbir ci kanam yàlla soo ko jëmale woon ci sa bopp mu ne la yaa ma tardeel yaa ma toroxal boo ma wanoon yàlla rek ma xam ma maanaam ma noppalu su ko defee mu ne kat wanoon naa dëgg ji da bëggoon say caaxaan yàlla boole leen ñoom ñaar ñëpp dugal leen safara kër réerle woon ñaari mbugal mbugalu réeram mi ak mbugalu réerleem mi kañu réeraloon menn mbugal muy mbugalam réeram ma rek moom la yàlla di wax ne xaala wax na la si nga xam ne maanaam istakbaroo dañoo rëy woon bañ topp leen li la si ñaal nga xam ne istud'afuu dañ leen lompaloon ba ñuy toppee ñu ne nax nu ñun de sadda ah, nax nu ndax ñun saddadnaakum ñoo leen dëdduloo anil hudaa wala si yoonu njub bi ba'da iz jaakum gannaaw bi nga xamee dikkal na leen bal li fi nekk daal du ñun de ba kuntum nekk ngeen rek mu jiri mi di way fàggu ay tooñ yéen nekk ci ay kàccoor waaye ñun maanaam réeraluñ leen wa qaala wax la si na ñi nga xam ne istud'ifu lompaleef na leen la si na ñal ñi nga xam ne istakbaru dañoo rëy loon bañ topp leen ñi leen wax ne balli fi nekk makkaru lay li daan pexeem guddi mi ngeen ñu pexeel la wa nahaar yeeg bëccëg yéen a mbaal ki seen guddi ak seen pexe bëccëg yi gàllankoor ñu ba nga xam ne tey ñu topp leen ba istamaru naa ba ngeen ñuy digal an na kufra ba ñuy weddi billaay ci yàlla wa la ñuy def la ñeel yàlla an daadan ay ndend yàlla ne wa asaroo nëbbu nañ foofa ñoom ñëpp kañ doon toppee ka ko doon topp ana daamata ak réccu la maa raaw ba ñu gisee alaxasaaba mbugalam yàlla mi waaye lu ci mun dee xam yàlla ne jël yéen malaaka yi xeew leen ñëpp ngeen ñooñ leen dugal leen safara moo tax mu ne wa jaxal naa def nañu al axlaala ay gax boole loxo yi ak doq ya takk ko fii axnaaqi la na ci doqi ña nga xam ne kafaroo weddi nañ yàllay laaj nag ne xal yi gisoon ndax def na fayef leen ña doon toppe di réeral nit ñi ak ña leen doon topp ñu leen di réeral illaa maakaanoo lu dul loo xam ne nekkoon nañ yaamaloon di ko jëf kon nag suñ la toppee boo bëggee noppalu wanal ñi leen di topp yoon wa jëm kër yàlla nga noppalu ñu noppalu buñ ca tegee nga xam ñaari yool buñ ca tegee tegeekul nga am benn yool mu yoolu ginde ga su fekkee ne nag da leen a toppale jëmal leen yoon wu jëmut foofa jël dugal leen ci yeneen yoon yi ci yowmal xiyaamee yaag ñoom ñëpp nga dugal leen safara yow ñaari mbugal moom mooma mu am benn mbugal su ko defee kon nag xuloo bañ war a xuloo ëllëg ca kanam yàlla koo mënoon di topp yàlla defal na la déclaration bi fii nga teel koo xam soo boobaa nag koo mën a topp fu mu la jëmee yow xam nga ko nga yeewu ànd ak sa xel mi xam bu baax a baax ci li ngay xalaat ba xam bala ngaa yegg ka ëllëg ca kanam yàlla réccu yi am te du jariñ kon nag yàlla xee nañu kenn ku ne xam na lan ca moom aaya jii tegu ci yàlla ne fu ma mosee yónnee yónantu rek patron yi ñoo koy njëkk a weddi dëgg joo andi ci penc yi patron yi ne du dëgg ndax xaalis kiiraay la daraja kiiraay la juddu kiiraay la ndomba tànk kiiraay la moo tax yonantu yi ba leen yàlla yónnee ña gën a ñàkk ñoo leen njëkk gëm ña gënoon a njëkk a weddi mooy patron ya boroom xaalis ya ndax si dañu foone seen alal ju bëri ji lu yàlla yónni ñoom la ñoom la war a waxak ak balaa yàlla wax ak kenn ñun la war a wax ak ndax ñoo yore koppoor yi loolu la ñu gëm moo tax maanaam nit ku baax ku nekk ñu ëpp alal ñooy gën a yéex a jariñu ca moom waaye tamit ñi nga xam ne ñoom amuñ benn gàllankoor amuñ benn problème amuñ benn xijaab ñoom fu ñu gisee dëgg rek amuñ dara gi leen ni gàllankoor da ngi dem toppi loola moo tax mu ne wa maa arsalnaa musuñoo yónni fii xaritin ci ñooñ dëkk illaa qaala dul ba wax na mutrafuha ñuñ xéwiloo nga ca dëkk ba mooy borom alal ya ne innaa naka ñun kaafiruuna way weddi lañ bi maa ursiltum ci loo xam ne weddeef na leen yónneef na leen bii ca moom lañ leen yóddi lañ leen yónni ñun dañ ko weddi gëmuñu ko yonentu ba ma mës a yónni rek patron yi ñoo koy wax lii maanaam liñ la yónni daal ñun gëmuñu ko demal seeti ñu la gëm yàlla bu doon bëgg ñi gëm ko ñun ñu yore koppoor yi lay waxat ak waaye yow mu ñàkk mi bu la yàlla yónnee tamit kenn du la déglu bu ko defee nag ñi amaat beneen kiiraay waqaaloo ñu ne ndax nu ñun aksaru ñoo gën a bëri am waa leen ci xalal li ñu am ci compte banque am ko ci ay immeuble yow amoo dara nga naan yaa ngi ñuy xoo suñu alal di dong nga bëgg wa aw awlaadan ñoo leen ëpp ay doom li fi nekk yëpp suñuy doom lañ yow amoo njaboot wa maa nax nu déet ñun bi ñu nekk ñu ñuy mbugal suñu xalal ju bëri ji ak suñu doom yii teral ju ñu yàlla teral ci àdduna bu yowmal xiyaamee day ëpp day raw rek di continuer waa ñun kenn du ñu mbugal kon nag lii mooy pas-pasu borom alal yi waaye nag alal bu la ko yàlla joxee defoo ca lu baax yaag moom yëpp yàlla bool leen mbugal leen moom lay wax nii moo tax mu ne wa maa am waalukum dee seen alal yi wala awlaadukum du caa kenn seen doom yi bi tii di la nga xam ne tuqarribukum dana jegeel leen ind naa fa ñun sulfa ak jege seen alal ju bëri ji jaamuhu leen ci yàlla du leen bi jël lu dul sori yàlla waaye mënu leen a indil jege yàlla seen alal ju seen doom yu bëri yaru leen leen ci yoonu lislaam du leen jari lu dul sori leen yàlla su ngeen bëggee mu jege leen yàlla jaamu leen ci yàlla seen doom yi ngeen teg na ci yoonu siraatal mustaqim yàlla ne faw ñu ne mu ne ah kay ah ilaa man taabalul ko ilaa man amalul koo xam ne gëm na ba jël xalal lam ja def ko ci yoonu yàlla yar doomam nga ci yoonu lislaam wa amila mu jëf saalihan jëf ju baax fa ulaaka yooya gaay lahum ñeel na leen jazaa'u di'fi payak danañ am fay gu leen yàlla fulal ci seen alal ya ak seen doom yi bi maa amiloo ci li nga xam ne jëf nañ ko wuhum fekk mbir moomu ñoom aminoona way hóolu lañ ci njàqare ak ci dee ak ci feebar fil xurafaati ngi nekk ca étage su aljaana ya nekk ca kaw étage ya mu hóor leen péng ne dootuñ deeati dootuñ feebarati sécurité pire ci lañ dund kon loolu ku ko bëgg a am jëlal sa alal ji nga def ko ci yoonu yàlla sa alal sa doom yi la yàlla jox ni doom jafe am yonantu yu ko amut am wali yu ko amut nga yar leen teg leen ci yoonu siraatal mustaqima waaye boo ko defut nag innama amwaalukum wa awlaadukum fitnatun boo lëggee fitna rek la lay jural fitna goo xam ne mën na laa yóbbu ëllëg safara waaye nag boo bëggee ba nga noppalu defal qu anfusakum wa ahlikum naaran qu anfusakum wa ahlikum naaran nag mooy tegu ci yoonu siraatal mustaqim jël sa njaboot yëpp teg leen ci bu fajar jotee nga yeewu yee sa njaboot ñi dem julli ji bu weeru koor jotee nga yee leen ñi xëdd soo fekkee dañoo bëgg xëdd bu alquran jotee nga jàngaloo leen sooy wàccee kaamil tëj xatma ba woo leen léeg-léeg nga jox sa doom ne ko tëjal xatma bi nga yow ngay wax amin foo leen fekk ci lu baax nga ñaax leen ci safaan ba tamit tabaarakalaaw nga tegg leen ci su boobaa sa doom yi buñ melee nii luñ def ci lu baax yow donte dee nga dañ la ciy bindal yool ndax yaa leen jur ci lislaam waaye soo leen ñëlee yar leen bàyyi leen yaroo leen ci lislaam jàngaloo leen alquran tegoo leen ci yoonu siraatal mustaqima nga bàyyi fi kër ñu jëli jigéen di fa mooy di naan sangara di def lu bon boo liggéey yow moomu tamit da nga cay am bàkkaar ki seen bàkkaar ba te du wàññi seen bàkkaar ba dara boo liggéey yàlla boo leen dugal safara kon nag yàlla moom yeen nañu ci lu leer yoon wi leer na bu baax a baax ñi daanee ci aaya jii mu ne walladina gaay nga xam ne yasaaw na danañu dox waaye mi ngi ci mu jëf fii ayatina ci jéem a yàq suñ kaawtee fii di alquran mu aji si na di nattale seen ak rëcci foo ne mën nañoo rëcci du sotti ulaayka yooye gaay fil azaabi nekk nañ ca mbugal ma wala bu la neex nga ne ulaayka yooye gaay muxdaruuna ñu ñu teewal lañ fil azaabi ca mbugal ma yowmal qiyaam di def lu bon foog ne da nga rëcc yàlla bu yowmal qiyaamee safara nga jëm moom la alquran wax qul waxal ne inna rabbi naka borom sax inna rabbi naka borom sama yabsutu mooy tàlla risqa wërsëg wërsëg kenn du ko yaatalal sa bopp yàllaa koy wërsëgal di ko yaatal ku ko neex ngir nattu la ndax da dimbale nit ñi moo tax mu ne mooy tàllal wërsëg li ma ne saaw ñeel ku ko soob ngir natt ko min di ci jaamam yi wa yaqdiru mooy xatal wërsëg lëhoo ñeel ku ko neex ba tey waaye wa ma anfaqtum lépp loo xam ne duna la ngeen ko min shay'in ci lu mu mën doon fa huwa moom yàlla yuxlifu dana huutalal leen ko loo joxe yàlla jox la lu ko ëpp wa huwa moom yàlla moomu xayru raasiqiina mooy gën ci way wërsëgal ñi de kuy lebal lebalal yàlla su la yàlla faye rek nga békk keroog ba aaya jee wàccee lan tanaalul birra hattaa tunfiqu mimmaa tuhibbuun Abdurahmaan ibnu Awf ne yàlla dafa ne li ngeen gën a bëgg du ngeen ko am lu dul dangeen a joxe li ngeen gën a bëgg man de sama alal li ma ci gën a bëgg mooy sama tool bii mooy tool yi patron yi léegi rek tool booy noppaloo mu jël tool ba yëpp may ko ay mbokkam ne saraxee naa ko ci yoonu yàlla keroog tamit Ousmane Ibnu Affan ba mu demee ci njëkkam ma jënd dugub jënd ceeb ñëw dina fekk gaa yaa ngi xiif gaa yi commencé di ko tagal bénéfice boo jëndee benn ngi tagal la beneen muy ñaar mu ne bëgg naa lu gën a yokk ñi ne ñett mu ne bëgg naa lu gën a yokk ñi ne mën nañ laa defal 4 pour cent mu ne bëgg naa lu gën a yokk li ma li nga bu ngeen mënul daal 1 pour cent du leen ko mën a jaay ah gars yi ne ko boobu bénéfice mënuñu ko mu nekk am naa ko man loola ku ko man mu ne yàlla man jaa bil hasanati fa lahu ashru amthaliha dama koy jox yàlla su ma ko joxee benn mu fayee ma ko fukk jël lépp sarax leen ko ne def leen ko dépense ma def ko ci yoonu yàlla loolu boo ko defee bis boo deexee sa biir bàmmeel bu la yàlla fay rek nga bëgg kon yàlla nañu yàlla fayal boppam yàlla xiir ñu ci boppam def ñu dëgg-dëgg julit may ñu mujj gu rafet wàccee barkeeb alquran ci ñun wàccee ko ci yéen wàccee ko ci mbooleem jullit ñi fu ñu mun di nekk wàccee ko ci wal fajiri jiital ci boroom kër gi di wax ne bu yowmal qiyaamee ba ba ñu dekk ci suñuy bàmmeel yi ñiy ràmm ak ña ñuy ràmm yëpp jàq ba yàlla mujj uññil ñay ràmmu njàqare mu ca yonantu ya ak ca awliya u yaag ulama u ya ñoom ñëpp nag ñiy laaj lan la yàlla wax ñu ne yàlla de lim wax rek wax ju dëggu la léegi nag loolu la mbokk mi doon jàng ci loolu la ñuy war a yegsi nii xata ida fusia an qulubihim mooy bi nga xamee ne yàlla wuññil na njàqare way rammuña walis seen xol ya ñu ne maada qaala rabbukum lu seen borom wax su ko defee nag njëkk ñu yegg foofa mooy ne nit ñi bu ñu génnee ci seen bàmmeel yi dañuy fàndaañu fàndaañu mooy kenn du sol dàll ñaareel bi dañuy rafle rafle mooy kenn du sol yére góor ak jigéen a ci yem su boobaa njàqare sa njàqare gi dana da ko tal ba doo tal sa awra waxuma la awraay morom ñépp nag départ jëm ca péncam yàlla ma bu nit ñi ñëwee def benn sàppe jinne yi ñëw wër leen juróom-ñaari yoon malaaka yi ñëw wër jinne yi juróom-ñaari yoon yàlla samp nag baskilam maandoom ba commencé di àtte nee na lu mbooloo mi bëri bëri par kenn rek lay recevoir man yàlla du ma boole kenn ak baayam du ma boole kenn ak yaayam du ma boole kenn ak sëriñam duma boole kenn ak xaritam wa kulluhum aatihi yawma alqiyamati fardan kenn ku ci nekk tamit danaa wéet ak yow ba nga yaakaar ne yow rek laa mës a bind yow rek yaa nekkoon ci àdduna bi booba place buñ fa yeggee yal nañu yàlla dolli sutura yal nañu yàlla dolli jàmm ak naataange xéewal ba ñu bokk ca mbooloo ma nga xam ne dañuy wax ne waaye kañ la woon bis penc fekk ñoom yëguñu ci dara am na ñuy am loola yal nañ ci yàlla boole boole gi mu war a boole nag ñëpp ci pang mooma commencé nag di régler li muy njëkk a def mooy ibliis kaay nga joxe sa déclaration yow yaa wax yaa doon woon nit ñi pour ñu jaamu la yaa doon jël nit ñi di leen rafetal lu loo xam ne nii lu ñaaw la nga leen koy rafetal loo xam ne lu bon la nga leen koy baaxal ñu toppoon la ca lu bon kaay nga wax iblis jaam bu ñëpp ne yéen nit ñi ma toppoon nag jinne yi naxoo mbaay yàlla waxoon na leen dëgg ngeen bàyyi ko bañ koo topp ma wan leen ay ay caaxaan ngeen topp ma ca tey nag maag yéen ñëpp ci mbugalam yàlla mënuñ cee ci moom la alquran ne inna allaha waadakum waada alxaq wa waadtukum fa fa ma kaana li alaykum min sultaanin illa an fa fastajabtum lii fala talumuuni wa luumu anfusakum ma ana bi musrixikum wa ma antum bi musrixiya inni kafartu bi ma ashraktumuni min moom déclaration am jeex yàlla woo yéen maanaam yonentu yàlla Isa mi ngi topp ne yàlla la yaayam yàlla la mu ne yow Isa a anta qulta linnaasi taxisuuni wa ummi wa ummiya ilaahina min duunillah yow yaa wax nit ñi ne yaag sa yaay yàlla ngeen ñun ñu topp leen bàyyi ma fi qaala subhaanaka tudd naa sag sell yow yàlla waxuma leen lu dul la nga ma waxoon su ma leen waxee lu dul loolu yow xam nga in kuntu qultuhu faqad alimtuhu taalamu maa fi nafsi wala alamu maa fi nafsika dafa def musaakala bay saxalal yàlla bakkan waaye yàlla amu ko waaye moom waaye comme saxalal na ko boppam rek mu def musaakala ci xam-xamu balaaxa taalamu maa fi nafsi comme na mu ne wala wala alamu maa fi ka yàlla nag jël sëriñ yi toppoon ak yeneen wàllu yëpp ñu def déclaration ñu leen toppoon te fekk teguñ leen ci yoonu siraatal mustaqim ne yéen a ñu sànq ñeen ngeen ñeen leen yéen a ñàkkoon fayda di ñu topp moom la wax ne iz tabara alladina tubiu min alladina tabaau wa raahu al azaba wa taqataat bihimul asbaabu ba laaya ja jeex loola tamit dana ko def su paree tamit xërëm yi def déclaré ne yéen a ñu toppoon di ñu jaamu léegi nag déclaration wu malaaka yi la yàllay wax si nii ci aaya bi ne yéen malaaka yi yéen a waxoon nit ñu topp leen di leen jaamu bàyyi ma fi loolu nag lay indi nii di wax ci aaya ji kon wax naa la déclaration Isa wax naa la bu Iblis wax naa la bu xërëm yi wax naa la ñeneen ñu toppoon ñu doonte kenn la toppoon da nga régler sa diggante ak ca yàlla su ko defee nag mi ngi wax nag ñeneen malaaka yi ñoom tamit seen déclaration bi ci yàlla nu muy demee moom lay wax si nii moo tax mu ne wa yawma naxsuruhum fàttalikul bis boob danañu pang leen jamian mbir mu muy mboole seen nit ñaak jinne yeeg malaaka yeeg yépp ñu pang leen ci meññam pénci suma naqulu topp ñu wax ñun yàlla lil malaayikati ñeel malaaka yi ne leen ahaw laay ndax gaa yi iyaakum yéen dong kaanoo lañ nekkoon yaabuduna di ko jaamu waaw yéen malaaka yi gaa yi yéen lañ doon jaamu malaaka ya dawres ne xaaloo ñoom malaaka ya ne subhaanaka tudd nañ sag sell yow yàlla anta yow waliyu naa yaay aji méngoo suñu min doonihim walis leen yaa dox suñ diggante ñoom xam nga li xew jaamuhu ñëwoon de bal li fi nekk bal bàyyil kaanoo nekkoon nañ yaabuduna doon jaamu aljinna jinne yi jinne yi lañ doon jaamu de ñoo leen rafetalal lu bon li ñu jàppee ko muy lu baax lu lu ñaaw li ñu jàppee ko muy lu rafet ba tax na ak aksaruhum li gën a bëri ci ñoom muminuuna way dëggal lañ bihim ca jinne yi waaye ñun jaamuwuñu yàlla ne daal fal yow ma tey fii ci àllaaxira laa yamliku du bijjal baxdukum lenn ci yéen li baxdin ñeel lenn nafaan njariñ ku fi mën a ramm sa morom tey amu fi ci bakkanab yéeféer ca moromam ma ba ca gu tamit mu ne wala du maanaam du jañal lor du jañal baxdukum lenn ci yéen li baxdin ñeel lenn daran lor lenn ci yéen tamit du mën a jañal moromam ma lor mbugal mi yëpp day daanu seen kaw lu may wax mu ne wa naqoolu ñu ne li ma naqoolu ñu wax lu ñu nga xam ne xëla moo tooñ nañ ne zuuqoo mos leen azaaba naari mbugalam safara mi allati safar si nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tukazibuna doon weddi tukazibuna doon narloo bihaa ca moom yàlla ne ne nii laay attee kon nag képp ku ñu topp am nga responsabilité bu mag bu yowmal qiyaamee boo réglé sa digganteeg yàlla ba mu leer nga jël sa dara ci waxin ne yaa ngay jëm aljana yàlla ne waqifuhum innahum mas'uluun taxaw leen leen leen ñële dama leen a yenoon ay responsabilité ca lañ jiite woon ñii jiite woon nañ ay mbooloo ne sëriñ lañ ñii jiite woon nañ ay jàkka walay jumaane ilimaan lañ ñii jiite woon nañ ay réew ne ay président lañ ñii jiite woon nañ ay poste ministère ni ay ministre lañ ñii jiite woon nañ ay gouvernance ni ay gouverneur lañ ñii jiite woon nañ ay association ni ay président lañ ñii jiite woon nañ tamit ay mbootaay ñoom ñëpp gannaaw bi ma leen réglé na ngeen leen taxawloo ñoom tamit ñi regle seen digganteeg nañ jiite woon su ko defee nag ñañu jiite woon su fekkee ne dañ ko dañ ko tegoon ci ay pexe teg ko ci ay tappale teg ko ci réeroon leen teg ko ci jëmee leen ci seen bopp soo liggéey yàlla boole leen nag ña ñu réere yëpp dugal leen safara ñooña réeral leen ñaari mbugal ña réeral benn mbugal ñee seen mbugalam réer ma ak seen mbugalam réeral ma su ko defee ñële tamit ñu jox leen benn mbugal bi nga xam ne mooy ca lañ nekk kon képp kuñ topp soo bëggee noppalu jëlal nit ñi nga xeew leen ca yàlla xam ne moom kenn dong moo xattan nit ñi moo leen bind moo leen i wërsëgal moo leen di rey moo leen di dekkil moo leen di fay seen jëf waaye boo leen bëggee jëmale ci sa bopp rek bu yowmal xiyaamee da nga réccu loo doon juddoo danga nga réccu lu ñu la doon toppee su ko defee kon nag euh, ñoom malaaka yi dégagé nañ seen responsable seen seen responsabilité ne yow yàlla ñii ñun daal jinne yi lañ toppoon topp jinne yi dafa bëri ñu ci bëri tey jaamu jinne dafa bëri seet yi ngay gis muy seet yu tembur yi yëpp jinne rek waaye ji seetal la téléphone woote jaar fi mu ne la lii lii fu mel nii moom dafa mel ni seet dafa xew ki suñ jamono ji te yonent bi ne boo demee ne yaa ngiy seetlu te même yaa ngi dem rek waa gi sax lam la wax gëmu ko dem gi nga dem rek ñeen fukki fan loo julli yàlla du ko nangu lam la wax nag soo ko gëmee man yonent bi li ma indi woon moom weddi nga ko yow moom yaa ngi ànd ak waajale kon bokkutoo ci diine ci tey nag bët bu set yaa ngi seetlu téléphoné fii dugg ci ruqubale am naa fi waajale mu seet ay pettaawam seet ci kurusam seet si nangamang seet ci ndox mi seet ci lële nangam ak nangam ne la nangam la su ko defee yow tamit nga gëm lépp waaw booy seet di seet boo xam loo gis mënoo koo fànq buñ la buñ la seetal ne tey ngay dee loo ci mam te nga rafet njortu ta bàyyi yenn yi yàlla ñenn ñi jaamu jinne yi ca gàtt ya ñu rey tuural yaag yi ñu reyal géej géej yi ñu reyal seytaane yeeg yi ñu reyal yëpp du jeex ñenn ña gaaflu ga bala ngaa génn tuur ndox boo dajee jigéen dëpp boo dajee góor ne sama yoon dana neex gaaflu yu dul jeex yooyu moo tax yàlla ne wa maa yuminu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikuuna wallahi ñu bëree bëree bëri ña ngay jaamu yàlla waaye seen jaamu yàlla googa ak seen ngëm googa raax nañ ca lu ca bokkul muy ak weddi yàlla ak ak bokkaale waaye yàllay kese lu raxu dara jafe na jafe na ci suñ jamono ji lool bokkaale gi bari na ba jéggi dayo kon nag loola kon yàlla wax na ko leer na muy wan nag comme wax na ne safara la jëm dañ ko laaj lu leen yóbbu safara moom lay wax si ni yàlla doo xëy rek mu bind la nga nekk ponkal mu dugal la safara day am foo jaar ba dugg safara li leen tax a dugg safara mooy weddi yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam li leen tax a dugg safara mooy weddi alquran li leen tax a weddi safara li leen tax dugg safara mooy wan alquran gannaaw ak wan sayduna muhammad gannaaw moom lay wax si ni moo tax mu ne wa ida tudla na alayhim ci ñoom ayatuna suñ aaya bayinaatin mbir mu muy aji leer naññi xaaloo ñu ne ma haada déet kii di ko jàng ilaa rajulun na de muy as ngóor soo xam ne yuridu dafa namm ayu saddakum mu dëdd loo leen amma loo xam ne nekkoon na yaabudu di ko jaamu abaakum seen bàyyi dafa bëgg ngeen bàyyi seen yoonu bàyyi ñëw topp ko wa qaaloo ñu ne ma haada déet alquran ji muy jàng illa ifkun lu dul muy nar muftaran ba di buñ duut ay nar la rek yuñ créé wa qaala wax ladina ña nga xam ne kafaroo weddi nañ lil xaq ñeel alquran lamma jaahum ba nga xamee ne dikkal na leen ñu ne in haada déet alquran ji illa sixrun lu dul muy njabar mu biinun bay aji biir alquran njabar la loolu lañ jëm yàlla ne ñoom mosuñoo am ab téere nu ñuy mën a xamee téere bu wér ak bu wérut mosuñoo am ab yonantu naka la ñuy xamee yonantu bu wér ak bu wérut moo tax mu ne wa ma aataynaahum mosul leen a dikkal min kutubin ci téere yadrusunaha yooyu boobu ñu jàng ko musuñoo jàng yi téere ndax ummi yu na lañ wa ma arsalna musuñoo yónni ilayhim jëm ca ñoom qablaka na la jiitu min nazirin ci jenn aji waaraate kon nag wa kadaba weddi na la si na ñi nga xam ne min qablihim jiitu woon na leen sa gaa yi seen weddi gi dañ koo roye ki ñeneen jiitu woon weddi yonentu yàlla noox ak yonentu yàlla ibrahima ak muusa ak ñooña waaye nag wa ma balaxoo jotuñ sa gaa yi misaara maa aataynaahum fukkeelëb li nga xam ne joxoon nañ ko gaa yële weddi woon yonent yi ci kartan ak ci fan ak ci wërsëg te ñooñu alagoon naa lan moo tax mu ne fa kadabu ñooñu weddi woon rusuli sama yonent yi fa kayfa kaana seetal naka lay nekkee kaawteef nakiir yi sama mbugal tamit ci gaa yi seetal sama mbugal tamit ca gaa yooya ñee ñoo leen ëppoon kartañ ba ñu weddee sama gaa yi mbugal naa leen kon tamit sa gaa yi bu ñu la weddee faw danaa leen mbugal man yàlla kon yow yonent bi sa xel dal ñii li leen tax a dem safara mooy weddi alquran weddi sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ku bëgg a mucci mucc ci safara del jàng alquran la nga ca man boole koog di jëfee ndigal ya bu diglee nga def bu teree nga bàyyi bu xuppee nga tiit bu béglee nga bég bu waaraatee nga waaru bu xisaa nga yéemu nga jël alquran ak loola yooya mu làmboo yépp nga fexe ko làmboo di jël jël ndigle ya di bàyyi tere ya nga jël tamit sunna su sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa mu tegoon tànkam nga jéem ko caa roy moom mi doon wax ne lépp lu moom mi mu ñu waxoon ne lu ngeen gis ci yonantu bi mu wax ko wala mu jëf ko rek jël leen loola ngeen roy ko wa maa ataakumu rasulu fa xuduhu wa ma nahaakum anhu fantahu ñaari yi ku ko def da maanaam da nga mucc ndax moom sax ba muy dem ñaari la fi bàyyi dem naa waaye dew ma bàyyi naa leen sama sunna bàyyi na leen nag alquran feeg yéen a ngi ci jàpp jëfandiku ci du ngeen réer waaye bés bu ngeen bàyyee alquran bàyyi sama njàngale yoon créer seen i xuraafaatu bopp créer seen i xilaati bopp rek su boobaa maanaam da ngeen di alku mujj yéen ñëpp maanaam ci alkande goo xam ne musiba rek la leen di jural léegi nag ñoom dañu taxawoon def mbooloo ne yonent bi dof la xam nga nit ki su joxee xibaar nga nekk ki joxe xibaar bi xelam neexul kenn dootu ko jëlati même bu nekkee dëgg pour jublu ca rek yàq xelu nit ñi yàlla nag na leen kaay leen ma woo leen tawaar leen ci benn jikko jikko ja mooy yéen ñi amul xel na ngeen gisanteeg ñi am xel ngeen waxtaan par ñaar par mbooloo su paree la ngeen dajale ci xalaat ba ngeen xool ko wallahi kon da ngeen xam ne sama waa ji du dof ñaareel bi tamit ñi nga xam ne seen xel rafet na nañ waxtaan ak seen njeganaay bu ñu tëddee nañ toog ñu xalaat xool waa ji fi mu jaar ni mu juddóog fi mu juddóog lim fi waneeg fi mu jaar li mu wàccee ci moom ak li mu liggéey li muy doxal ak la muy wax loola bu la sa xel rafetee lu mu néew néew da nga xam ne sama waa gi duwul dof yàlla ne kon nag waxtaanal la seen xel te ngeen bàyyi seen wax jooju moo tax mu ne qul wax leen ne leen a aidukum daal dana ma waar leen bi waaxidatin ci benn jikko jikko ba lan la an taquumoo mooy ngeen taxaw waaye taxaw gi lim ci nama mooy hittewoo rek lillaahi ngir yàlla mas na ngeen def ñaar-ñaar wa furaadaat benn benn furaadaa ji mooy waxtaan ak seen njegenaay masnaa ji mooy ngeen waxtaan ak ngeen ëpp xam-xam su paree summa tatafakkaru topp ngeen xalaat su ngeen xalaatee ba dagale xalaat yi da ngeen yëg ne maa bi saaxibukum déet di nekk seen xàndandoor ba min jinnatin ci jinne jinne jàppur ko de nit piir la ku ñor la da ngeen xam ne in huwa déet moom illa nadirun lu dul muy aji waare ku ko weddi ci safara di bégle ku ko gëm ci aljana lakum ñeexal leen bayna yaday azabin ci diggante mbugal ci kanamu mbugal shadidin mu tar mu ngi leen di xupp di leen waar ci mbugal mu nekk seen kanam moo xam ne su ngeen ko weddee mënu leen mukki ci safara qul wax leen yow sayyiduna muhammad ne naqarihuma gëm ndax lu tax maa saaltukum laajuma leen min ajrin ci genn payoor fa huwa moom loola sax maanaam ngeen bëgg maa jox lakkum ñeex leen far leen ko jël in ajree déet sama payoor illa ala llahi lu dul mu war yàlla muy lam may fay wa huwa moom yàlla moomu shahidun aji seede la ala kulli shay'in ci lépp lëf kon ànd leen ak seen xel ngeen waxtaan da ngeen xam ne yonentu bi nit pire la maa bi saaxibikum min jinnatin kooku waxoon na ko ci wan najmi ida hawa ma dalla saaxibukum wa ma gawa seen waa ji xelam mi sànkuhut ku ñoro ñor la ku dégg li muy wax dégg ni koy waxee xool ni muy jëfee da nga yëg ne moo gën a mat ci doomu adama yi waaye gis nga tamit mu jàngal ñu ne ku bëgg waar nit ñi teg leen ci yoonu siraatul mustaqim bu leen laaj dara waaye nit ñi boo leen bëggee laaj alal ñoom tamit ñi bëgg laa laaj njub jaayante moo fay nekk dëgg du fa ne qul ma asalukum alayhi min ajrin loolu mooy wax yi ñëpp qul ma asalukum min ajrin maanaam loolu mooy wax yonentu yàlla noox mooy waxi Moussa mooy wax yonentu yàlla Ibrahim mooy wax yi ñëpp boo déggee na mu ne fa huwa lakum mooy même li ngeen ma jox jiraat leen ko loolu waxin waxin wu xóot la ci waxinu yaaram mooy nit ki su fekkoon ne joxut la sax nga ne ko jël ko loolu mooy dooma jox rek lay tekki su ko defee nag mu ne man daal laajuma leen dara boo gisee aaya ji wàcc tamit nag aaya ji moo njëkkoon na wàcc qul la asalukum alayhi ajran illa al mawaddata fi l qurba moo jiitu woon mooy laajuma leen dara ci li ma leen di jubal li ma leen di jàngal li ma leen di laaj daal fonkal leen ma sama waa kër te fonk gi sax jubluuma ci ngeen yëkkati ma jubluuma ci ngeen yëkkati leen waaye damaa jublu rek ngeen texe ndax nit mënul texe te fonk te fonk njaboot ak sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam léegi nag euh, bi leen yonent bi waxee loolu yonent bi ngi defaat délégation ne yow li nga bëgg mënul sotti yow yaa ngi nii di pour ñu soppal la sa kër yi te yaa ngi nii di ŋañ suñ xërëm yi di defloo suñ yàlla yi loolu mën ta nekk aaya ji wàcc ne leen man faratuma leen laaj dara léegi daal man sama payoor lépp yàlla doy na ma ca moo tax kon boo nekkee ku ñuy déglu sëriñ nga borom xam-xam nga ilimaan nga boo yaakaaree ña lay topp ca lañ am ñoom tamit ñu yaakaar ci li nga ne dëgg du fa ne ab taalibe dana ñëw mën a joxe addiyee lool takk lam doo ko ñu may wax ne lam bi xaraam na ab taalibe dana ñëw jugee ko bitim réew takk ponkalam goldu seen bu rëy mën a joxe addiyee doo ko ñu may wax ne seen bi xaraam na muy jëfandikoo yeneen ak yeneen ya doo ko ci wax dara lu dul ah moom kay nañ ko ñaanal yàlla jubal ko rek kese lu tax lam la jox a tax kon nag loolu dëgg du fa ne su waaye nag euh, li li yonantu bi wax daal yonantu yo wax ko ku bëgg jubal nit ñi loola ngay def rek wala asalakum alayhi ajran aaya ji mu ne alquran ñëw na di dëgg lislaam ñëw na di gën a am doole rek leneen lu dul moom day gën a néew doole ba péncam yàlla nag alquran day gën a am doole lislaam day gën a am doole xat mu jot weer wu jot bët bu set mu gën a xew leneen lu dul moom bët bu set weer wu dee at mu jot mu gën a xewi xelaat buñ tëral bëri nii rek bu déwee ne bala yeneen xelaat ñëw loola bu ko indi indiwaat beneen ci loolu la ñu ne duñ jëm fenn waaye nag xelaat ak wax ak jëf judul sàppi du xewi ba pencam yàlla mooy alquran ak lislaam mooy loo xam ne bëri jàng du ko tax a xewi bëri luñ koy wax du ko tax a du ko tax a sàppi noo gën a waxee mu gën a baaxati yàlla nag loolu lay wax si nii moo tax mu ne wax leen na leen jaa dikk na alxaqu dëgg muy lislaam wamaa yub di wuddu sosooti albaatilu neen wamaa yuidu di dellu seeti tamit de qul wax leen ne in dalaltu su fekkee sànku naa fa innama adillu ndaal sama sànku gi dan nga koy taawil masdar ala nafsi dal na sama kaw wa in ihtadaytu su fekkee gindeeku naa fa bimaa yuuxa maa ngi gindeekoo ci sababu loo xam ne def na wax yu ko illee jëmee ko ci man rabbi sama borom innahu naka moom sama borom samiun aji dégg la wax ya qaribun aji jege la jëb ji mindeefam yi kon lii taarid la dafa bëgg a wax ne lislaam ñëw na ku bëgg a xew te doo xeweeti ñëwal nga adhéré wu ci lislaam alquran ñëw na koo xam ne bëgguloo sàppi ñëwal nga jàng alquran te di ko jëfandikoo leneen lu dul moom dana xewi dana sàppi euh, beneen bi mooy nag na ngeen xam ne man mii ngeen wax damaa sànku maanaam su ma sànkoo sama sànku tegeeg bàkkaar ba yëpp sama kaw lay dal waaye dafa bëgg a wax ne yéen bu ngeen sànkoo seen sànku tegi tamit seen kaw dong lay dal waaye tamit su fekkee nag gindeeku naa sama gindeeku ki maa ngi ko jëlee ci li ma yàlla wax yu ko loolu mooy lan su ngeen bëggee gindeeku topp leen li ma yàlla wax yu rek su ngeen ko defee ngeen gindeeku waaye su ngeen ko toppul maanaam da ngeen di perte yéen ñëpp maanaam ngeen nekk ci alkane léegi na bu yowmal xiyaamee caalik gi ñuy caalik bu foofa ca péncam yàlla ma naan ñun de perte nañ dañoo far sax gëm nañ yàlla fekk foofa place ab fayeeku la dul place am ngëm loolu la yàlla di wax si nii moo tax mu ne walaw tara boo gisoon yow sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam idi fasixu waxtu wa nga xamee ne jàq nañ ñoom xéeféer ya bàyyee koo seen bàmmeel ya tiit ñu ne leen falaa fawta dee tëg ci kenn ci yéen dura ci mbaal nañ leen côté yëpp mu wër leen wa uxisoo mbugaleef nañ leen mi makaanin ci place xaribin bu jege fañ leen i mbugalee ak fa ñu taxawee di saalik fu jege seen bàmmeel yi la wa qaaloo ñu ne aman naa ñun de gëm nañ bihi ci yàlla yàlla ne wa anee lahum naka lay nekkee ñeexal leen tanaawusu ak jottalikoo ngëm mi makaanin ci place ba idin bu sori ñu ngi àllaaxira àllaaxira soxlaatuñ fa ngëm fii lañ koy soxlaa dem faye ko ko àllaaxira waaye kay foofu dutu jëriñati wa qad kafaru te mbir moomu sa dëgg-dëgg weddi woon nañ bihi ci yàlla min qablu ci njëkk wa yaqdifuuna ñu ngi doon sànni bil xëy bi ci faddu mi makaanin ci place ba idin bu sori nekkoon fee ci luñ xamul dara ci lu faddu xamuñ ca dara di ko weddi muy yàlla ak alquran ak mbiram àllaaxira waaye nag léegi waxiila digaleef na baynahum seen diggante wa bayna maa na ak diggante lañ doon fayto lañ doon bànneexoo ca jonga ma yaag lekk yaag dëkkuwaay yaag waruwaay yaag lépp yàlla dox seen digganteeg loola remplacé leen ko mbugal def na leen ko kama faayla comme naka la defeef bi asyaa'ihim seen mbooloo ya nga xam ne min qablu ñoo leen jiitu woon yàlla ne innahum naka ñoom kaanoo nekkoon nañ fi shakkin ci sikk muriibin bay agi tàbbal sikk ci lii lañ nekk ba alku kon nag képp ku weddi yàlla bu yowmal xiyaamee da nga réccu ne man de gëm naa yàlla ne du jariñ ndax fii soxla fi ngëm da nga taxaw maanaam doon weddi loo xam ne dëgg la nga bëgg a gëm loola nga nekkoon ci bànneex bu doxoon sa digganteeg eh, ba mënoo gëm bànneex booba nag yàlla dox sa digganteeg moom remplacé ko ay mbugal bànneex bi nekk tey bànneex dafa bëri te seytaane dafay yey ñu bëri seytaane am na fulla ne man li may woote duma ko du ma ko du ma ko wanteer dama koy jaay waaye nag ñi nga xam ne moo leen colonisé ne ko ñun jaral nañu yàlla ne man li may woote jaarale ko ci loxol yonent bi dama koy maye gaa yi ne soxlawuñu xoolal tey baal baag concert yaag xaw ma bégee lañ koy tuddee ak lépp maanaam gaa yi dañuy fay xaalis bala nga caa dugg da ngay fay lu bëri lambu jaag lene te day fees tep doo julli tisbaar tàkkusaan timis gexe jàkka yaa ngi nii amul fay dara jàpp ba set tuuroo parfum sol yére yu sell dugg ca jàkka ja julli ñeenti rakaa yàlla fay la payoor gu dul jeex nga ne jaraluñ ñu ko rombu jàkka ji dem dem ci loo xam ne kenn xam ko jël sa alal ji la yàlla jox ni alal jafe nga koy doole dooleelee saytaane di ko dooleelee lu ñu lay tagg di ko dooleeloo ci yàq di ko dooleeloo ci ñu lay bàkk ngay dooleel loo xam ne yàlla bëggut ca dara nga romb sa koñ ba nga nekk jàkka yu parewut yi xale yu yalwaan yi alquran ji ñuy jàng ca koy jàng amuñ dara te mënoo ca dara waaye mën ngaa joxe say million joxe say oto ci loo xam ne dañ lay tagg rek bàkk la nga bàyyi fi yoonu yàlla kon dëgg-dëgg seytaane ñim colonisé bari na lam ne woon la ughwiyannahum ajmaina daal maanaam loola maanaam yàlla defal na ko ko kon mu mel ni saar wi jeex na foofu